baaxoo di def la ñu koy def bés ni tey euh, bés ni tey nag da di bés bés spécial ñu ci bari ci góor ñi bu ñu baree ay façon ak ay jonge ak ay mbere mbese dañuy faral di dem ci waaj bi ñenn ci jigéen ñi génn ñenn ci góor ñi di fóot la ko waral moom mooy bés bi ñu nekk ne leen ma ban bés la wala vous vous rappelez de cette journée mooy 14 février la journée de Saint-Valentin Saint-Valentin nag ñu ci bari baaxoo noonu ne dañ koy jagleen ñi nga xam ne ñoom ñooy aji bëggante yi ñun ak yéen ñep danañ ci am walu bu ya wo xamni que ci partager des moments intenses et des moments forts de télévision tay gi comme nous koy baaxoo di def yor yor bu jot ci seen première chaîne de télévision euh, privée à Kaolack 14 février bés ni allons ñun tam dañu baaxoo bu ñu xëyee bés ni tey dañ leen di fatali waxtu wi tembe lan moom mo fi xewon ci réew mi ni ñu ngi on se rappelle 14 février 2018 ci le di ku njëkk George Weah George Weah di ab footballkat bu mag waaye tamit doon njiital réew bi nga xam ni que njëkk naa ñëw ci réew ak Sénégal ba mu fi ñëwee kaddu ga mu njëkk yëkkati ngir baaxe ko ndaw ñi fexe leen ba bay tamit ngeen ràññee ko ci wàllum football ndax jomb ma jomb leen man mi doon nekkoon naa Ballon d'Or 1995 ba yooyu kaddu la yëkkati woon ci Ndakaaru 14 février 2018 moom George Weah 14 février 2014 ñu ngi fàttaliku Akon tournée nationale bi nga xam ni que door na ko ci juróom-benni den euh, pays Afrique la ko sababu mooy gën a fësal projet boobu ñu naan projet solaire ngir lampadaire solaire yi ngeen di gis naka la ñuy def ba nu am lépp loo xam ne jëm na ci wàllum courant boo xam ne duñu ko jéggaane on se rappelle euh, de euh, Akon ak bëgg-bëgg yi nga xam ni am na ko mu ngi ko dooroon 14 février 2014 14 février bés ni tey la journée internationale bi nga xam ne moom la ñuy jagleen waaye aji bëggante yi ñun ak yéen. man ak yaa on s'aime moi je te bëgg comme ça voilà 14 février 2018 ci la tribunal bi nga xam ne moom mooy jugé ñi ñi jëm ci wàllu acte terrorisme on se rappelle ñaar fanweer la noonu ak ñeent ñoo xam ne que dañ leen jiiñoon ne dañu bëgg a def yu njombe ñu naan leen les jihadistes jëla euh, procès boobu ubbeeku woon ci Ndakaaru bés ni tey tamit jàpp leen ne bërëbu tasukaayu xibaar yu ci bari xëy na nu fësal nii. 65 euh, personnes yi nga xam ne tegoon nañu leen loxo ci diwaan bu Mbàkke ñeent ñi ay élèves loolu tax nag élèves ya nekk ca diwaan bu Mbàkke 72 heures la ñu xàppati suñu yaay ñi seetaan mooy ñetti fan yoo xam ne duñu fancal sa xànc ak morom ma la ko waral mooy duñu dem ci l'école yi ndaxte am na ñeent ca ñoom yoo xam ne jàpp nañ leen ci euh, manifester yi amoon ci diwaan bu Mbàkke 10 février gii wees ci naka noonu Guy Marius Sagna ak waa FRAPP France dégage ñu nga xam ne ni ëllëg ci àllarba ji daan wàcc ci mbedd mi yëngu yëngal waaye doxoon ñaxtu la ñuy amal la ko sabab mooy Hannibal Jim pour ñu ko xamul activiste la boo xam ni que mu ngi woon di euh, dajaley koppar ngir dimbale sénégalais yi waaye tamit bokkee ci kuréel gi ñu naan Pastef jàpp gi ñu ko jàpp tegewul ci yoon ak vingt-neuf détenus yi nga xam ne sàkku nañ fi mu toll ñu teggi leen loxo Pastef ci noonu bind ñu ab leetar bu yaatoo yaatu jébbal ko waa société civile ngir ñu artu nguur ak Macky Sall ci jàppaate gu metti gi nga xam ne parce que fi mu toll yi ñu ngi koy dund parce que di parti bu Ousmane Sonko les patriotes PSD moo am naam vendredi samedi dimanche la groupe Walfadjri di euh, bon groupe Walfadjri di waajal ngir tamit am toogaanu ñaxtu boo xam ne que daan ko doore ci CNRA Babacar Diagne waaye tamit beneen bi ci place de la nation ak beneen boo xam ne daan ko amal ci ARTP ngir tamit wax seenu naqar te kenn mënatu leen seetaan ci TNT ak li nga xam ne moom mooy canal donc loolu ñu ngi apporter suñu soutien. au groupe Walfadjri maître et la Diouf ne gaa ñi fi mu toll nii dañ ko bëgg a jëlee ngir du layal Adji Sarr ci mbiram ak Ousmane Sonko moo taxit décision bi ñu jël décision politique la dara waralu ko Aliou Lo di ab activiste boo xam ni que yàgg nañu ko dalal fii démb la Serigne Mbouck meer bu Kaolack ci ab décret wala ci ab ordonnance xaatim ne dàq nañ ko ci maire bu Kaolack dootul tey eh, eh, eh, coow la tàmbali na Ligue des tey jii lay tàmbali bu ko defee gaa ñi commencé waat dugal xaalis ci tudd tur bi salaamaaleykum sunu bàyyi maa ngi lay fay Babacar di jékk di di tàmbale samay kàddu jéggalu ndax xaabaabal nañ ci heure bi ñuy waroon tàmbali. waaw te bëri na lum ñuy dal. Hmm. Euh, du suñu coobare léeg-léeg. ci tardekat yi la. way xarala yi la léeg-léeg problème mu tardekat yi la mais ñuy jéggalu rek askan wi. ndax euh, tàmm nañu bu. Euh, fanweeri minute feggoo ci fukki waxtu ñu jàkkarloo ak ñun ñu bëri toog di xaar gisuñ xamuñ li xew donc ñu ngi sàkku rek ngeen jéggal ñu encore une fois de plus euh, di nuyu téléspectatrices ak téléspectateurs Kaolack TV ak waa Kaolack yëpp di jël rek lépp loo xam ne nuyoo la rek di ko teg ci loxo ki nga xam ne moom lañ dénk dëkk bi muy gouverneur pour mu wasaare ko ci askan wi di bantuwaat rek ne. comme ni ma koy waxee saa su ñun duñ kang duñ fóori duñ ci ben yalla ñu baxé natto ñu ñu nekk ci fi di fi liggéey ngir di addu yalla bindi àddunaam noo xamné ñi ci biti ñi ngi japp né xam-xam ak leeraange mi ngi génné ci télé wala rajo donc ñun ñi ci wax du ëppuñ leen xam-xam tay doomu aadama kese lañu may sàkku rek buñ ñu déglu ci mbokk bu ñu déglu ci xaritoo bu ñu déglu ci sant ak waasu ndax ki ngay déglu ci ñett yooyu bu waxee naka sudul noonu doo boo du boo fonkul sa bopp dëgg doo ko weddi kon di déglu leen ñu ci xam-xam ndax bu ñu juumee nga mën ngeen mën koo nemmeeku benn te bu boobaa dangeen ngeen mën am xarañu ak ormaawu yeggee ñu njuumte googu waaye saasu dars bi yeggee maanaam leçon bi jàllee ba nga am ci xam-xam fa ñu mënta toog wax yow toog fa nga jottali ko ngir ñëpp mën ci jëriñu. bu defee xam gi gën a mën a yaatu ñu ngi lay gërëm bu baax sunu bàyyi El Hadj tey am na mu gan gu mat gan gan boo xam ni que dootul ku ñuy présenté fii ci diwaanu Sénégal Pape Ousmane Gueye lay woyoo mu ngi bawoo ci beneen bërëbu tasukaayu xabaar bu wuuteeg bii ñu ne ñoo ganeen suñu tey ngir ñu waxtaanee cosaan histoire dinañ ko waxtaanee ak bés bi tey. mandargal gi waaye colos gi nga xam ne cëslaay gi nga xam ne itamit am na ko ndax dee su ko màggal ak naka lañ ko war a màggalee dañ ci ñëw ci kanam tuuti moom mooy Saint-Valentin euh, yaama maa ngi lay nuyu te di la siyaar. Babacar maa ngi lay delloo nuyu di la wax sa sañ sa baax na sa rose baax na di nuyu doyen di nuyu soxna Penda mu sell mi di nuyu suñu invité bi. damaa bari kersa ba mu wax firi boo waxee da ngaa sañse xam nga yow yu baaxul quoi sa tenue daal macha allah di nuyu mbokk téléspectateur Kaolack TV yëpp di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye di leen wax ñu daal jàmm seen biir émission match show Babacar ñu waxtaan ci kanam tuuti ak waxtaan yu am solo ak gan gi ci kanam mm. euh, laata ñuy tàmbali benn maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Babacar maa ngi nuyu DG maa ngi nuyu Yaama di wax Pa Ousmane dalal ak jàmm di nuy képp koo xamante ni jamono ji rek yaa ngi dagg sa yitte di seetaan marché ci heure bu baax bi ci kanam tuuti rek ñu dal di yaatal ak li gën a fës ci këru ëttu këru yëglekaay yi. waaw lanu xëy fësal ci seen xat bu njëkk Penda moo ñu koy jàngal à tout moment waaye wolof daal di. Mhm. rey nopp bu doon tax dégg maam kenn ko dóor yet mais xale yi dañuy def di génn ci temps. Mhm. benn ñëw génn contre temps. contre sey lii sëriñ Tuubaa aca ñu tàmbali ak bërëbu tasukaayu xabaar yi lañu xëy fësal ci seen xët bu njëkk ñu tàmbalee kook euh, ban journal libération la ñu koy dooree mu xëyee fësal rek euh, ki nga xamante ni mu nataalu jaajaatal ne daal dinañu koy faat foofee ca Abidjan jaajaatal nekkoon ki nga xamante ni nag bokkoon na ci ñi ñu doon enquête euh, ci deewuk Iba Thiam ginnaaw ba mu amee overdose foofee ca Almadi ab soirée privée la ñu doon amal ci jamono yi mbas mi weerub avril atum 2020 ba tey tamit libéral daal juróom ben fukki nit ak juróom yi nga xamanteni japp jàpp nañ leen juróomee nak di ay élèves ci lolé sax dal nañ leen di demb guuy Guy Marius Sagna daal di xamle ni dinañu tëral seen plan d'action rek ndax japp gu ñuy japp askan ci jamono ji rek ah, jaaduwul le réveil nak dal di xëy na Doudou Ka di dinay valider li nga xamanteni modi candidat au président Macky Sall ci jamono joju nak mu ngay faqat nga xamanteni ni moom Ousmane Sonko président Macky Sall ba tey daal di waajal apremaniment bu bes na mara xass li nga xamanteni rek moom modi gouvernement bi ci bobu la jamono turbine nak dal di fësalaat juróom ben fukki nit ak juróom yi nga xamante ni jàpp nañ leen ñu namatu ju kaso rek bu ñu muyulee wut Saint-Valentin Babacar tey la nga xamante ni rek di Babacar Diagne ak waa Sénéral li ko wund bokk na ci dagg gi ñu daggoon seen image ak juróom-ñaari fan yi nga xamante ni toog nañu ko divisé ngir lu jëm ci programme bi nga xamante ni moom la ñu ki nga xam ne Idrissa xaw ma Idi Idi idi bu Thiès dinañu ko àtte ñaar fukki fan ci weeru février mu dox ci jafe-jafe bi mu amoon ak digganteem ak ex-travail yooyu noonu le quotidien wala sax li quotidien di xamle jafe-jafe yi nga xamante ni rek Maître la Hadji Diouf daal dina tax ñu gàntal li nga xamante ni moom moo di liggéeyam ginnaaw ba mu xamlee ni li ni mel la politique rek moom moo ko lal ba tey groupe Walfadjri fësal plainte bi ñu nam ma teg nag ci ndond ki nga xamante ni moo di Babacar Diagne Moustapha Cissé Lo xawma daal di tëj làmmiñu askan wi rek ginnaaw bu bu ne li nga xamante AFP amaguñu li nga xamante nii rek moom moo di candidature les échos daal di wane avantage yi nga xamante nii nag euh, secteur euh, formel bi am na ko jëm ci askan wi foobee jamono nag parti socialiste bi nga xam ni takku nañu bu dëgër rek ba candidat bi nga xamante ni bennoo taxawal na ko ñoom ñoo ñu sax dinañu ko jàppale Sonko ñu koy toppee lu jëm ci yàq lu jëm ci bien privé ginnaaw ba mu doon amal meeting ba fa fecca Mbàkke ata ñu mujjee ko woon gàntal sport le peuple daal di fësal ki nga xamante ne moo di Pape Gueye na nañu koy jaay ci lu toll ci fukki million ci boobu la jamono nag lom ñu ngay wéy di jubile waaye démb Sadio Mané dafa absenté woon ci groupe bi diggante Bayern Munich ak euh, Paris Saint-Germain ci boobu la jamono ginnaaw ba ñu koy toppee lu jëm ci harcèlement moral moom Pierre Mendy li ni mel nag dafa mujjee am euh, non lieu suñu làmb wala sax laas la ñuy wutali euh, combat bi dox ci diggante Boy Niang ak xamante ni rek moom moo di Modou Lo taxaw na Babacar te ci loolu sax ñuy xam ne ni combat royal la daal ñuy xëccoo rek bokk na ci seesu buur bi li la bokk na ak li gënoon a fës ci xibaar yi ñeel li nga xamante ni moom la ñu xëy fësal Babacar. baax na tamit ñu euh, wax ndaw ñi ne huitième euh, de euh, finale Ligue de champions tey di dina door war jongante yi nga xam ne moo gën a fës lañ leen di wax rek diggante Paris Saint-Germain ak Bayern de Munich bu Sadio Mané Sadio Mané du bokk ci boobu la jongante. Mhm. waaye Paris Saint-Germain yi tamit Kylian Mbappé. Mhm. du bokk ci jongante boobu Milan AC dina jàkkaarloo ko Tottenham. ak euh, ban moo ci gën a fës sax euh, benn leen dina jàkkaarloo ak Watford yi bokk na ci jongante yi xam ne gën na fës ni tey jërëjëf benn ñu ngi lay gërëm bu baax. ci jàng gi euh, ak ci commenté bi ñu ànd ceeg suñu baay. Mm-hmm. ñu jël journalu bi nga xam ni moo wax ci libération yenn kaay baay moom boo ñu mënee jox libération ak 65 personnes yi nga xam ne teg nañ leen loxo ci diwaan bu Mbàkke tey jii lañu war a jàkkaarloo procureur bu diwaan bu Njaareem. Euh, ndax japp nga ni ni euh, euh, société civile bi daan wax ni war nañu apaiser tension yi bàyyi gi ngir démocratie beeg yooyu yëpp mën a dellu soit ci réew mi loolu dina am antu tey. mi ngi am tu bu ñuy def bàyyi kiy dóore téye loxo. ñuy def bàyyi. kiy dóore téye loxo. ndax aussi dañoo nekk ci république bu am nu mu organiser Babacar. dëgg la politique bi fës na ba nit ñi lijjanteetuñ la marche de la république ni muy Euh, marche la manifestation dëgg la Abdoulaye Wade moo inséré dans la constitution mu nekk droit mais nous ñi comprendre la constitution c'est une loi fondamentale mais la loi fondamentale c'est une loi organique qui ko encadré Man nga respecter loi fondamentale bi respecte la loi organique mais préfet de la ou le gouverneur parce que les lois organiques dañ ko indi voté ko pour mu encadrer loi fondamental bi la constitution c'est-à-dire dañ ne la sañ-sañ bi nga am pour marche mayu la sañ-sañ nga xañ yaama mu dem marché. sañ-sañ bi nga am pour marche waaw mayu la sañ-sañ nga xañ kii mu dem marché. Ah. te tey bu fekkee ne gis nañu ne xàll bi nga war marche wala bi nga war a manifester kii jaay caafare jaar pour jaay pour mën a yóbbu

Ah, non non non non non non non. est-ce que est-ce que Ousmane Sonko togg le dire bu lekk ci tax mu wax mhm. je parle qui euh, les faits mais les faits les faits euh, opposition bi préfet masque mars sa meeting préfet ci loi organique bi suma ma 75 soixante quinze 79 soixante dix neuf wala soixante quatorze dak dàq. soixante interprétation c'est faux. yoy wérul bu ñu la bu ben nit signé. rek warna am autorisation non c'est pas qui demande moy jox bopam autorisation bu doon yow dañ ne la boo signé am autorisation lu ngay déposer lettre bi dañ ne la boo déposer da ngay def lettre d'information. Yeglu, yeglu, ne ko fi ak fi lay jaar. ça revient maintenant à l'autorité administrative mu xol est-ce que force de sécurité bi mat nañ est-ce que foofu du entraver à la bonne circulation de la localité kooku moom moo ko moom moom la ko pouvoir bi jox pourquoi ñu nangul opposition bi li leen constitution bi jox nanguluñ préfet gouverneur li leen constitution bi jox mais pourquoi c'est-à-dire que bu ñu bu ñu def théâtre politique waaye itam tere gi est-ce que warul woon nekk 24 heures wala 48 heures avant. ñaata ñoom bi ñu koy déposé ñaata fan lañ est-ce que respecté nañ délai bi. attends non attends gis nga lettre bi gis nga date bi il ne faut pas parler dans les nuages, il faut parler des choses factuelles Nous avons wan demande bi ban jour ko déposé nga avons délai ak délai préfet addo foofu gis Il faut juger. juger. faut juger. wax auparavant comme ça c'est du yonne. gis nga opposition bi am nañ droit manifester pouvoir bi avons la responsabilité garantir la sécurité à tout un citoyen uh-huh. mais nous, les citoyens nous avons la le devoir de respecter les élections.

c'est parce que manifestation Senghor ràjje leen jël Sidy Lamine affecté ko kedou yóbbu leen armée par force. waaw mais jaay dole googu nak lañ bëgg mu. dakk mais dama ne ñi mënu ñoo def lu raw lolu nguur gi mënta def lu gëna a lele kon nañu tok ñu waxtaan. mais Macky fi mu toll mu ngi. non mi ngi caw de. waaw mais pourquoi xam nga Sénégal tay boma saga saagaa bu ma la dóoree duñu xool saga bi ma saaga dóor bi rek la ñuy warta dóor parce que moo ëpp doole mais ki néew doole di saaga te fii néew doole am doole amu fi c'est pas Macky Sall doomu Kumba ak Amadou président du nit c'est une institution qui incarne ñun ni ñëpp ku ciy wax bu président jógee bu jaar yoon da ngay wàcc et pourtant heure bi ñu ko wàccee. ala kulli xaal kay noonu lay demee. heure bi ñu ko wàccee. Mhm. nekkatu président yaa ngi moomay daje ci kaw tali bi. tu ah, kenn du ko xànjal parce que nekkatu institution. dafay réduire à waaye nag bu ñu jëlee arrestation yi tamit 65 la ñu wax ca Mbàkke 29 yi nga xam ne franc franc dégage lim nañ ko démb ñu teg ci beneen doomi Kaolack boo xam ne waa Kaolack sa war nañ ko xam ne muy Azoura. Mhm. ak euh, Libération wax na ko ak beneen euh, doomi Ndakaaru ñu naan ko Lamine muy ñaar bokkee ci 29 yi. ak 65 yi ak 19 yi ñu fekk. ca kaso léegi lan lañ def. lan lañ def. biral mbir mi mu gën a tax def. élèves est marche heure marché bi heure ah, voilà Dans il faut placer les contextes les choses dans le contexte élèves est gis élèves bu Vous faire jotee dem daayira waru la dem ngénte waru la dem ci waru demal nga jangi seen ca grève nga jangi. ñoo parce que élèves grève teguñ ko si xam ta un ko si ah. tay bu fekkone ne élèves dañ leen cadre.

mi mi dañuy dajee di waxtaan mu am beneen bi mooy état moom moo am la responsable de garantir la sécurité pour tout le monde ay nit fu ñu taxaw ful taxaw fa yoon dana nguur gi fexel nga tek fa ay takk der bu ñooñu naré xaabaabal nga ñu arrêté len mhm. benen bi moy autorité administrative bu ne la amul mais demal Kër Massar bi dañ ko nangu feneen ak feneen dañ koo nangu bu ñu leen bañalee fee Mbàkke mais nañu ormal nangu loolu dem. Mhm. utiwaat beneen parce que politique bi yemul tey yemul. léegi buñ bu ma nee ci nasoom la ko teg bakkanam loo tontu. Euh, préfet bi loolu moom kan préfet bi. waaw non du ma ko. ak ku jege kat noonu la waxee nee nañ ci nasoom la ko teg mhm. gis nga ki bëgg li nga yor da xëpp suuf pour kenn dootul a gis. ngir nga dànn mu toog. luñ koy bëggee rek lay wax xam nga dañoo nekk ci moment wu opposition bi dañuy manipuler état dañuy manipuler. yow na ngay yeewu dama toujours dama wax ñaari baat. moy lan. Sër Babacar bo togon sa bo xëyoon rek toog taal radio deglu pouvoir bi. Mhm. danaa wax jarul may xëy réew mi dox na. loo bëgg bo deglu opposition da na bu ma génnee bu ma yoratee dañ koy ta parce que rew ma ngi boy et pourtant Sénégal jàmm fi ne Sénégal c'est plus stable que liñ ko yakkar mhm. melu noonu ben groupuscule ñoo fi nekk di tour fi di toj fële mais voilà, je la au président Ousmane Sonko en particulier l'opposition oui. politicien leader. les hmm. léeg un leader non les mêmes. parce que leader c'est un orientateur. Hmm, hmm. orienté qui orienté. ki nga orienté bu la miinee mënatoo ko jub. kon ñi tiit ñi tiit ci réew mi jarul ñuy tiit. Euh, réew mi moom. Hmm. bu fi jàmm nekkoon ci amul sax war nañoo tiit parce que soqali ko ndax dafa am njaboot bi ñëw suñ ginnaaw ndax bu ñu fàtte ne ñun moomuñu ko dañu ko donn suñuy maam war koo delloo seen borom comme ndax comprendre nga li bëgg wax. moomuñu ko dañ ko donn suñuy war koo delloo seen borom. mooy génération bi ñëw ñoo ko. waaw génération future. ñoo ko moom kon war nañoo tiit. parce que ndonn jàmbur boo ko téyee war nga ko mën a sàmm bu mag comme jirim nga téye alalu ndondam war nga ko mën a sàmm ba bu màggee tedd ci bëgg-bëgg ñetteelu mandat Guy Marius Sagna dafa alerté démb mu ni Macky sàll bu laajee troisième mandat boo moywul guerre civile dina am ci réew quand moom dafa yor armée bu mu préparé pour mu guerre civile man ak yow ñooy xeex sàmba ak Fatou bi ne ci mbedd mi ah, xeex keneen ak keneen xeex dafa yor milice bu mu denc këram di xaar loolu am pour mu génne leen guerre civile am. moom guerre civile bi mu am dafa am ay réalité nañu bàyyi gis nga ñoom ñuy wax ni dañoo mës a dund fu ger am gis nga bés boo demee réew mu guerre am ñun am nañ chance man am naa chance def dix-huit pays yu jaar ci guerre dix-huit pays yoo xam ne ba ma fay nekk guerre bi da doon takk boobu noo def. ah noo def boobu. dénk sama bopp yàlla te jëfandikoo sama xel. dugg ci néeg rek toog amul. dem fenn non non def sama activité parce bu ñu la xaañee nag. Euh, ma xam ne sama bëgg-bëgg moo ma ko yóbbee damay assumer suma suma choix. Ah. gis nga bomb. yaa ëpp yaa bu ñu lancé. Hmm. ba nga dégg mu ne mbéw mu leeral yow mucc nga parce que bala fetal boo ko déggee mu yow mucc nga. waaw mbell gi kay dégg naa boo ko dégg boo siggee. Hmm. da xam boo ku dund loolu. doo ñaan guerre yi am. ca ñu biral ko ndaxte tey moom danañu duñ fi ne sa di attardé wu dañu war a waxtaanee histoire ak mbëggeel xale yi ñu koy xaar bari nañ démb lettre la wa Pastef djebal société civile bi lettre bi gudd lol lañ ca djop ñu né intimidation jaay doole def lu la neex ci hmm, ji bokku na diñ djebal société civile bi ndax d'accord nga ci liñ def d'accord na ci liñ def fekk rew noonu lay doxé foofu opposition bi taxaw na taxawaayu responsable motax kay ñu déppee ko une si longue lettre de Pastef à la société civile mom la wax fi jëm naa opposition bu demee ba gis da fay alerter ba paré

ñun ñoko fa samp mais Babacar Diagne moy njiit président Sall moko décret ci bi ko jox ci suñu kóolute mu fal ko donc dama nan Serena man duma ma dugg si yooyu Babacar yo xam nga <laughs> euh wal faji suspend nañ ko ñukoy metitlu lol diko naxarlu lol waye nak hmm. yonent bi daan wax nan sallallahu alaihi wasallam waree dimbale dégg naa boo ko waxul da ngay nay buñ ne yonent bi da nga naan sallallahu alaihi wasallam bu ko defee lo am mun ka bokk xarit boko wara dimbalé wax ko dëgg bu togné wax ko dëgg danga koy dimbalé ki togn suñu mbokk la mais loi bi dafa am lu mu wax lu mu wax ki dafa demander couverture médiatique d'un meeting ñu interdit meeting bi amatul demande bi valable automatiquement c'est caduc léegi jàppante bu amee nag taskatu xabaar bi amul droit génn ci mbedd mi gis lu mu wax. waaw léegi loi bi dafa bañ euh, incitation à la haine am na image yoo xam ne day indi haine day indi terreur loi da ko bañ. Mm-hmm. d'accord nga taxaw ñu dugub kër sëñ Gueye di ko saccagé man ma nekk njabootam toog kaw di ko seetaan. ñu koy saccagé ma gis ne kenn ki ci nekk maa ngi mbaayam ñoo dëkk de côté est-ce que mënumaa dem fayu foofu. loolu lañ ciy bañ nañu dem ci loi yi ak règlement yi. Mm-hmm. loi yi ak règlement yi ñu ngi masawu bu baax nu mbokk euh, journalistes yeeg animateurs yeeg techniciens yeeg en yapenda. waa dëgg la ñu nekk ci wal Walfadjri métti na. comme ñoo bokk euh, li ñuy liggéey. te corporation bi waaw. voilà donc bu ñu ah, amee loo xamante ni lu dal seen kaw la yoon la ñu méttitlu ko. mais aussi di ñaan rek bu mu amati wala mu yem fi parce que tamit bu ñu xoolee wal fi yàgg na di liggéey lu mel nii. Mm-hmm. ci jamono yi euh, Abdoulaye Wade président Macky Sall jël réew mi. Ah bokkoon na ñi nga xamante ñoom ñoo ko dooleeloon. doon ko dalal ngir mu wax li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam mhm. donc yàgg na koo liggéey mais aussi gis nañ ne bu koy liggéey rek gàllankoor da ko ciy fekk mhm. mais li jarañaan mooy yàlla ko yàlla may chaque jour xool bu mu muñee mhm. Euh, Pape Seck nee na mu ngi lay gërëm bu baax El Hadj analyse yi am na solo nee na nag bu soñoon nga continuer ko waaye duñ ko continuer de déedéet mënul nekk am gan gu am waaw bu am solo sax ak bés bi tey bésu lan la <laughs> bésu cakat <laughs> gisoo yàppee na numu mu sama sama sama soppe ya, bi la takk ci lu tax nga génne nii yow ya lu tax ngay génn contre temps chaque jour. ñun ay yaay Fall lañu. te bu dul dara li ñuy màggal. waaw bokkul suñu taarix. suñu ci am na ku soxor ma ma publicité sama sama Saint-Valentin tey. Hmm. mu génneel ma benn waaraate ya boo xam ne boo koy déglu sa yaram bi day wàcc. yow ci question laa ko def rek ne ko yow loo si jublu point d'interrogation yónnee ko mais yooy yooy nañ ci wax kenn ku ne na nga def li ngay def waaye bàyyi nañ bàyyi génn contre temps. voilà ku nekk ak. waaw mais euh, na nga def li ngay def mais nañu bàyyi di génn contre temps mais yàq valeur de la république ak valeur sociale. déggal moom fa mu génnaat ñu ngi leen ñu yaa bu bàyyi la nga nuyu kat. waaw Pa Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu. di la bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateur yi am métti nag ak contentement bu bare bëree bëri ci li nga ñëw teew ci plateau. Mat Show Pa ñu ngi lay nuyu. ku juddu ci wax. ku juddu ci wax. Hmm. ñu ngénte la ci wax. ngay liggéey ci wax. Hmm. takk soxna ci wax. ngénte ci wax céetal ci wax boo taawlu mu ma sa yaakaar day tas. Hmm. di la ziar baax sëñ Ababacar day fay bu baax. di la nuyu baax a baax di nuyu soxna yaa mi nga xam ne. xam uh-huh. kër gi ak ñëw fi ci moom la awe. Uh-huh. taal di ko ziar baax a baax waa maa ngi lay nuyu. di la ziar di ziar soxna Penda bu baax moom ci sa wet. di ziar waa Kaolack ñëpp bu ñu ne Kaolack nag sama xel dana dem Medina Baye. Samba Corofal Samba Jay la ñas di ziar uh-huh. Serigne Mahi Khalifa Ba. waaye di ziar waa Léona Niassène bu baax a baax sama xarit Imam Mohamed ñas waye di ziar wa lew na bu baakha baakha baax waye di ziar waa ndoorong waa ndoorong wa keur seigne basirou Mbàkke ndax seigne basirou Mbàkke mo fete won salum di ziar wa kawla ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp ñepp rek di leen wax ne pap Ousmane Gueye la euh, bu sen TV ñew fe tay fi ci kawla TV mhm. kawla TV nek lu am solo ndax kawla rek dafa doy seuk mhm. ndax mam Baay yobuna tour kawla fu nek kon kawla TV nek lu am solo ñuy ay doomu papa doomu baay ndax télé yëpp TV lañ sant te rajo yëpp FM lañ sant. Mm-hmm. tele yëpp TV lañ sant sànq maa ngi koy wax waat dinaa ko Dunia laa déparé. mais 16 mai 2006. jóge fa ñëw duniyaa Kaolack jóge fa dem jaar euh, Oxygène Pikine Walf nag lañ ma gën a miinee en 2014 bu ma jógee Walf nag ci laa dem seen TV 2016. mais télé yépp ñoo bokku radio ñu def rajo yépp ñoo bokk ñu def na di rafet rek fm mhm. sant mhm. télé tv sant jërëjëf kon ñu bàyyi la xam bu njëkk bi mhm. euh, comme jaar nga ci groupe walfajiri quelques mots yoo xam di nga ko par rapport ak li nga na ci kaw dal ci seen kaw groupe de presse di walfajiri ni ko da waxee rek nay rafet réew mi buñ ko jéem taal réew mi buñ fay daal moo baax di fay ay rek. waaw fay baax ci kuy liggéey. fay baax ku luye ba weeru jot nga fay. <laughs> fay daal ci kuy sëy la baaxul. waaye taal bu buñ ko def. Mm-hmm. bala nga xam nag lu suukar di saf kaane da yàgg sa gémmiñ. Mm-hmm. jàmm ak a baax. jàmm du ëpp ay du tuut. te li ko taal fayu ko. lu dugal ngelaw lu dugal xob ma ca pax ma génnewu ko ca. Mm-hmm. kon nay rafet rek. ki nekk ci kaw. am doole nga yërëm ñu ci suuf nga yërëm ñu ci suuf te na doole ji lañ ko jox ba mu noggatu ëpp doole noggatu baaxul waaye ñu ci suuf tamit dañoo bëgg a yéeg te kenn saxul ci kaw yàgg-yàgg dañuy wàcc nañ xaar ba gars yi wàcc dañu yéeg kenn saxul ci kaw ah. buñ taal réew mi jàmm rek jàmm rek na wal fu tàkk macha allah tele bu baax la waaye tamit ñoom tamit nañ saatante ci yoon de rek Sénégal jëm kanam Sénégal jëm kanam. waaw France dellu ginnaaw agent suñu baay ñu ñu tàmbali waxtaan wi foo ko bëgg a tàmbali. waaw man de fi ma koy tàmbalee rek eh, ci eh, dama koy jaar dugalaale ko ci bés bi. Mhm. nemmeeku nañu. Mhm. Eh, boo jëlee xëy na doo ma weddi mhm. fukki at yi ñu génn. réew mi dafa commencé naqari deret noonu laa koy waxee. li ko naqariloo deret nag man daa gis ne ay sësluwaayam ñu ngi yolom te ña ko war a taa taawu. Mhm. amatuñ kàttan fu ñu taxaw maanaam mhm. amuñ fu ñu sukkandiku ba taawu ko mhm. muy ndaw ñi ndax amatuñu benn jikko ak nekkin bu orma boo xam ne ñu ngi koy jàng dañuy toppandoo di tarite mokkalaguñ ban jàngat nga ciy def ak lan nga ciy addu pour wax ci li nga xam ne gone ñu ngi koy feetee tey waaw jubbu ba la ñëpp xamee woon jubbu bi la ñëpp xamee boo ko watee rek réer Jupu bu la ñepp xamé boko woté wootee rek réer te bala nga yootu da ngay dëgg fu foo xamné da fay dëgër bala nga yootu dëgg foo xam ne dafay dëgër ah, ndaw ñi légui rër gi bari na rër gi bari na ndaw danaan déglu mag ndaw bu atam wul buy déglu mag ndu atam tuute tam du wax ñu ko acam amaguma ñeent fukki at wax na ko kii keroog fukki at mais sa baay modi di mag mhm. sabai 14 la juddu jàpp 15. 1914 jàpp 15. kon kooku saa maama. ba may gën àdduna boobu jege na 70 ans. mu yar ma vingt ans. kon bu ma koy déglu mën naa bañ a wax ñu ne acam. xale yi nag léegi dañoo réer. mag ñi dem nañ. ñu bëri ñi leen jur matul leen papa wala yaay. ñu bëri sax xamuñ seeni waajur kenn ki lañ xam. ñu bëri ci ndaw ñi amuñ maam. télévision moo wuutu maam mm-hmm. ba mu wuutoo maam nag tamatul maam ci la mbir mi yàqu mm-hmm. looloo fi am nag mbir mi léegi nekk ak jaxasoo goo xam ne mm-hmm. muy ngoon na naar ba ak tubaab ba bala nga xàmmee kenn ba dafay sët ñépp ay xonq waaw ah, waaw wër nag day xam ay jaaruwaayam ay royuwaayam maa ngi koy wax télévision ñoom Socrate la déglu ay <laughs> ñoom Aristote des ñoom Socrate ak ña ca des ñoom Platon ah, am na keneen ku siiw ah ñoom lañuy ñuy déglu te senegal am na fi ay mag ñoo xam ne nii lu ñu wax kenn ko dindi moo tax na ñu dugal ci njàng moo xam ne ay nettali rek te dugal leen valeur yi fi xewoon jikko yu fi xewoon jikko yu fi xewoon Abdoulaye Walimata Xumma bi ñu jëlee Salbe Jaxaaw Siin dañ kaa yóbbu Ñooro tafsir Maba Jaxu ba ne kii ay wàllu yoon nar a génn ci moom jox ko Abdoulaye Walimata Xumma Abdoulaye Wade Moussa Xumma stratégie de guerre ba Paos Koto Pata Badiane 30 novembre 1900 1865 moo jiite stratégie de euh, guerre ba. Mm-hmm. Pire la Plate lañ ko fa jamee. ah waay fa lañ ko fa dóoree dóor yu métti dóor yu métti. ah waaw Abdoulaye Wade Moussa Xumma moom lañ jox Salbe. daw ya fekkee naa ko am ci Mariama Ba Mariama Ba ñu ne ko Mariama Salbe ñu jël Mariama Ba indi ko Kaolack Abdoulaye Amit Kane mu am tam am soxna alaaj Malick na matal naa ñeent soxna jox ko sëñ Babacar Si mu am ci ponkal ñoom suñu Cheikh ñoom kon mbir mi amoon na fi xam-xam amoon na fi léegi nag dañoo réer ba ñu réeree nag léegi ba kenn xamatul fooy taxaw nag li yu bëri xew nag léegi mais dañu dugg ci mbëggeel gi. waaw ah. mbëggeel gi la. aywa ca ci la ñu nekk ba tey. man bañu ma jéggaani dara. waaye loo jéggaani rek. solal ko tubéy woddu ko. na méngoog li ngay nekk. en a time dara newu ci. déedéet. mais ñu ngi koy bëgg a yàq. waaw yàgg ah? yàgg na fi gis nga de. bañu ma mbëggeel. Hmm. bañu màggal bés bi ndax 365 jours yëpp mbëggeel la. Mm-hmm. waaye fësal ko benn bés da koy laaj. da koy laaj bi burdu di tàmbali burdu bi ñu waaj a gàmm. Mm-hmm. téere boobu kay ñu commencé mbëggeel rek lay wax. Mm-hmm. di wax ci mbëggeel rek ndax yonent bi la bëgg. Hmm? ama ama zajta dam xan jara min muxlatin bi dam mi min tasakuri jiraanin bi di zalab mi ma zajta dam xan jara min muxlatin bi dam mi di ko tagg ba ci yàgg man ko yàlla imi fil hawa mosiri manziratan min mi boo yëgoon li may yëg doo ma conseillé maa bëgg bëgg a foor moo foor bëgg suukar bu dee ci suukar kenn du ko weddi ah. bëgg dafa foor mais nag bëgg nag macha allah baax na am na solo màggal ko ci benn bis tamit dara na ci ku nekk ak li nga bëgg xoolal benn mi suñ mën taxaala bëgg di ndeysaan moo tax mu solo oh. màggal waaye nag bëgg ki jër bëgg oh c'est beau ça ak ni nga koy bëggee. ah nga koy bëggee c'est beau ça c'est ah ci anam ya nga koy bëggee. ak nga tee ci tamit ay boo bëggee bëgg. mais mais aussi am na ñu war a bëgg ak ñu war a bëgg. war a bëgg waaw. am na ñoo xam ne ils sont imbëggables. mooy mooy. ah oui mooy mooy ca anam ba rek. imbëggables ñooñu kenn naa bëgg. am na ñu jar a bëgg. Mm-hmm. am na ñu jar a bëgg as tuut. Mm-hmm. am ñu jar a xom taxaw ci digg bi am ñu jar a jeexal tàkk. Mm-hmm. waxkat ba def na soppub jigéen nañ koy yamal. soppub jigéen nañ koy yamal Mariam soxna yaamataan soxna yii kuñ fi xamal cofeel gu rëy duñ la musal ci jël sa yëf ak nattu la saa yoo xëyee joxes alal dawaatu wuti ñuy bu buñ la gisul naan kii mënul yambar wi la sab nattu la nga jël sa xol jox ko lépp xolo xëtër sama yambar wi mm-hmm. bëggoo ki a bëgg eh, wax nga dëgg de boo jël sa xol bi yëpp jox ko maam Baye <laughs> seexul islam mm-hmm. bëgg nga ki jara bëgg ah, bu jëlee sa xol bi yëpp jox ko sëñ Muntaxa bëgg nga kii jërë bëgg borom mbégte mi bu jëlee sa xol bi yëpp jox ko sa yaay wala ki nga xam ne nag sa jëkkër la joo xam ne xool nga ko bu baax a baax a baax a baax a baax mm. am na ñoo xam ne duñu wor mm-hmm. bu dee àll du leen war mbaam waaye nag léegi nag mbëggeel gi faam mbëggeelu commerçante yoonu fële lay wut paasu dëkk ba commerçant Dubaay mm-hmm. mbëggeelu commerçante dafay bëri paasu Dubaay lay wër rek la baa leen di boole du am bénéfice wala Turquie protection loolu nag moo fi am moom bëggeelu intérêt waaye boo bëggee te yàlla tax rek pertement mën na cee bañ a am mm-hmm. léegi nag bëggeelu intérêt moo fi am waaye mbëggeel lu am solo la mm-hmm. man damay bëgg ba dof mais lu tax léegi nga ni jigéen du kenn du ko jël ba mu jeex da nga koy cof tuuti lu tax loolu nga koy cof tuuti waaw ndax euh, non am nañu jora cof tuuti wala même boo bëggee ba mu jeex bu ko woon lépp dafa am ay baadoo la boo demee ba xam ne ki nga bëgg garme la ko baax la jox wan ko lépp am na ñoo xam boo leen wanee lépp rek ñu fuuyu xale yu góor yi bëri na ci xal xale bi bëgg la ba jeex tàkk mu lay woo appel nga bañ kaa faale doo damay ñoddi baar bi quoi may tegaanga bi nga fay fooy nga fay fooye loolu loolu xale yi naan ba mu rëccee la nga ne ay waay yaa ngi fooye sama xol di riisu di rëccu di riisu di rëccu te jëf day da doon nag jëf day taawloo day caatloo rëccu dootuma ko dooli joo dégg rek saa yu ma ba génn ca lay àndal jëf de da nga saa yi nga fase sa soxna ngeen dese tour de fin ba nga xool ko mu rafet lool. Ah. nga mu yëgoon du ma ko fase yow fooyee ko gis koo xam ne nii dafa mën. téye jigéen dafa mën téye mm-hmm. mais nag joxe lépp dafa baax joxe lépp baax na bu dee tasante nga ku baax ku baax ndax li naan jigéen soppal te bul wóolu du waxu pinc jigéen soppal te bul wóolu du waxu rajo lépp lu jigéen def góor ak ko def loo. Mm-hmm. li ngay làq ñëpp Babacar bu ko sa jigéen sa jabar xamee ci yow loo koy làq safatu ko. est-ce que dégg nga ma. waaw ah, mooy li may wax rek mooy li may wax rek. xamal gars yi dégg nañu non mu dégg naa la dama koy wax saa dama naan la ñun ñi toog fii ñëpp. ca yàlla ku ci nekk. Mm-hmm. yarul rek am na anam boo xam ne nangoo sa ndey ak sa baay fekk la ci. Ah, ah. mooy nga futteeku ba ne mm-hmm. jigéen def ko. jeex na kon loo koy làqati saxu ko. mère ba def na ko sama doom ji nga ma tàqaleel lu ne laa ci daj di ko nàmpal ba muy xale maa am doom maa jur soxna su ne ko ba nga liir nga ko doon nàmpal. léegi am na 40 ans di peser 100 kilos te ba tey maa ngi koy nàmpal. soxna si loolu ko tontu wax na ko dëgg. pour dëggal li ngay wax pour dëggal li ngay wax. kaay commencé na dara jël mm-hmm. ak ak ak dignité. Mm-hmm. i garaat. bu góor <laughs> saful jigéen saful jigéen de. tey saful tusuñe mm-hmm. ndax jigéen moom loo am am daraja boo xamee mu mën a la faale woon. wallaay waaw ñoom paaka lañu xale yi ne leen paaka. saful tusuñe. tusuñe mooy kii lakk ginaar gi mooy tusuñe waaw. merum gaynde fajul gàcca amna na xam bo boo leen mere tamit ya xam daraja gis nga daraja jooju nonu goor am sa fa jigéen ki moo tax bul dem ci keur señ bi señ si ay nit lañ de uh-huh. ba soxla ci xey këmax señ bi nga bëgg ci addu sa yoon neeku ci ay nit lañ te gis nga bo bëggee uh-huh. bo bëggee da ngay jaay lepp mbëggee lay jambar ji fess del ak katan gumba tëxlu la nga xol mhm. bala koy xelal ak jëf wees xàjjul kenn ku dul bànneex moo dàq bépp am am ak lépp luy taar bu ma koy misaal dama naan mooy perental ci xol moo sañ a tur jom dam mu bànqaasu wareef ub mbokk moo tax sama diggante ak sa noonoo amu fi baax fu na tisoo a yarhamukallah ajjana laa ko tuddee mhm. te ku lamb yaa tey daagu fañ la nobe nga bokk ci mbëggeel ak ci am sa son tuddee ko ajjana fiir daw si tur yu neex moom tamit mu am sa tur di la ko tuddee mhm. tuddee la tur yu baax. princesse princesse. Ah, waaw waaw man wax ma tur baax. amoore tur yu ma vie. waaw mon bonheur mon bonheur. oh sa sant yaa ngi may rey maa ngi maan Guèye Masary Ibou Dieye. Fatim Penda Lapsu ma jaar mi ci am gaal farakaba surtout yaa xam gëy borom ci mu foqul bënul ko ko toogoon jógu fa ba fa nekkoon anamu bis boo meeres nga ñëw daal di kiif. ndax daf lay tàgg yow tamit nga xam sa soxla di ko tàgg oh c'est beau ça ça c'est la amul ndax gis nga kiñ la mu wër xaaju guddi jox la ko mm-hmm. boo demoon di jëlëb séet ki gën a tuuti ci kër gi duñ ko muur jox la ko nekk góor déedéet ah. bu jigéen lañ yar ba mu yéen yéen a bëgg bëggan maternel yéen ñëpp a bëgg mbëggeel ñii gis nga tama ngeen bëgg bëggante yéen tama muñu rek dañu bëgg bëggante quoi la neex gis nga xale bu góor bi gën a tuuti duñ ko muuroo jox la ko <laughs> jigéen lañ jur jox ko bi muy namp eh. yóbbu maternelle yóbbu collège primaire collège lycée euh, ba ba université moo am ay diplôme nga bëgg ko ñu jox la ko ba pare nga def ci un million wala cinq cent mille chaque ngént ñu yebbi laatal la xanaa lii rek doy na mu ñëw ñu muura la ko indi la ko guddi muy wuyoo sa sant di wax géy géy ndeysaan mu am doom bu tuddee ka la neex ah. ngeen séq doom ci bànneex yow bi ngay koy am bànneex la moom muy jafte njambaan daqaar lu nekk moo tax boo ci amee ku jonge di tëdd ba xaaju guddi ëmb bi ëmb na la soowu gaynde laa bëgg soowu ñayi guddi ndax da jonge gën a mu dem ba am doom loolu ba ma ko defee dama koy wuti de jefte ba mu am doom imbi mag dafa metti ay daa ngi nii mu des ci ko ak bër bëri yaayam di nax defal di bes di kër këri bi bi mut bi ci bu mat di xar de dem di kër këri dareet lareet ak alas las ci ay demel lii ko gar muy gas-gasi amna dom doom na faatu tay mu imbi nga jël tuddé kala neex mais ki ni boko neexalul koy neex koy neex mon amour bo dem bañ def la liggéey mais koy neexal ki la jural dom nañ ko fonk ko fonk sa soxna do avancer wa mais fofu da ngay ñew ci baadoolu góor parce que baadoolu góor moo ko indi mhm. parce que dama naan yàlla sax góor ci gën a baadoo la mhm. ndax lu ko manqué fii mu uti ko fee ci am lu mu ciy ormaal mhm. lan mooy sabab baadoolo góor ci jigéen am na ñoo xam ne nii mbaxalum xeer lañ doo leen teel a sóor sóor boo yeggee tamit day woo mhm. góor ñi góor ñi duñu gis jëf bu baax quoi lépp lañ boo xoolee jeex na d'accord ci boo leen dénkee ko teel ñenn ci ñoom ñu bëri maanaam buñ ne ñu ëpp rek ñëpp ah, waaw maanaam buñ nekk cent pour cent bi quatre vingt dix bu ñu def loolu voilà merci day am voilà ah, très bien. boo leen nekkee kees ñu lekk ko. boo boo ñëwee ci kër gi indaale xale bu jigéen ñi muuroo. ñoom may sax waaw. boo leen boo leen boo leen boo demee ca daayira ba bu ñu dajalee ñu lekk ko. ñoom Baye Mor. tante bu ñu dem gàmm bu ñu dem jigéen ñaa fay ëpp. ñoom Mouhamed. togg añi ba mu neex ñëw laal parfum bu baax tey saraxe. ñoom góor yi nu ñu fay nekkee. ñoom Alaaji. waaw bayit woo yëkkati ñu àggale ko attannoa sabaxat ñu ne la ma zaka xaadatuha waja dinaa kii du nit nit la jox leen ko xaalis bi mm. mais duñu jox dara dañ naan kii du nit tey fotasu jigéen ñi ñoom ñooy joxe ñooy maye ba pare ñooy maye bëgg lool ak ñaa yéwén jigéen mm. day bëgg mm. bien sûr moo dala ak ma jigéen day bëgg góor day yërëm jigéen day joxe léppam mais góor mooy tricher gis nga jigéen ay tricheur la ñu may la ko soxna doo fexe ba àgg ci kawam. ñaari jin lay tegle. ak i baa mais góor mën naa am yow ñetti doom ba pare na sama yaay moom la ko mayoon naa bëgguma. waaw saa bu demee ba sonn rek ànd ak yow doom sosu mu ne bëgguma woon. mooy baadoola gi ba ci góor baadoola googu nag. ah loolu moo xaw ma ko loolu xaw ma ko. mu nañ fi seet. ah mu dem sëyi. non loolu xaw ma ko jëkkër ji njëkk a ëmbal topp ba. non am na ci réew mi. non mais. muuroo ko. ci ñun ñoo xam ne dañu sincère lu ñuy def lu ñuy def. yow sincère nga yow. laaj ko laaj ko ñaata. xoolal eh, sincère nga taxawal. sincère nga baatu mbëggeel ñaata jigéen nga koy wax jamono ji ñoo takku. non man fii may may laaj nga. non te bëgg du bañ te bëgg du bañ. bëgg du bañ boo xam ëllëg nga changé. mais bëgg na kii. fekk mais damay dikkaat.

ñu ci bari wóolootuñu jigéen ñi aussi loolu loolu la ñuy doxal ndax ñu bari wóolootuñu góor ñi mm-hmm. et comment faire maintenant ñu toll naka ngay def ba mucc c'est la question day xam boppam exactement nit day xam boppam nopp ci jaboot nu mu tudd ci wolof mm-hmm. nopp ci jaboot borom nopp yu guddi yi te mën a tëb lëg du lëg te mën a mayaam fu nekk golo golo golo wala golo golo nawet bee paase may mi baax mu am ay million mm-hmm. jënd costume bu baax jënd weer yu rafet jënd seetam daal di seetu rafet lool ne papa lu may nirool borom léegi di xool weesu na golo papa ji ne ko as go ne golo ngay nirool léegi sax dangaa ngaa da sax sa xeet xeeb sa waasu pour yow sa cravate beeg sa euh, euh, saago diplomatique moo tax nga bëgg bu weesu golo golo nga góor dafa war a xam ci ni bëgg. ku nekk am na koo war a bëgg lekkat bu ne am na dëkk loolu problème bi. moo la nga foog ne dañ lay nax. bu ma demee bëgg mariage yaa yaa ma taal. te mu sut ma lees yaa ma taal ne ma bëgguma la. bul forcer ma dem ba États-Unis am 4x4 bu jël 200 millions ñu teg ko buntu këram bu bëgg ma yaa ma bëgguma 4x4 bi la bëgg. Ah. conflit nga dem ngoro ji bëgg la woon conflit nga dem seen TV dafa liggéey ma xam ne ma am nga astuut. bu mm-hmm. bëgg la bëgg wala day média la kon nit day xam boppam ki mu war a bëgg bu ne am na dëppit. Mm-hmm. léegi nag problème moo di da ngay topp ci yaama bëgg euh, yaama bëgg yaama. fekk na Penda Diallo bëgg na la yow nag doo bëgg Penda Diallo yaa ma ngay bëgg. wallaay kat ku ne am na koo war a bëgg. bul topp ci ku la nombul koo wax bul topp ci ku la nombul. kan la loolu da lay gaañ Youssou Ndour. way na lépp. ah oui way na lépp da ngay eh, nopp ci nga bëgg gis nga sikkal ba ca jaaj mm-hmm. ak jag-jagal ba ca njaañ. jar naa réeréer la ba kolabaan xale yi xamuñ ko ñoo xam ma sikkal ma ca xam du de. sikkal ma jaaga may sa joor sikkal. Mm-hmm. sikkal ko ca mm-hmm. ñu jag-jagal ko ca dafa dem jàjj di ñaan soxna ñu sikkel ko xalé yi may amul jom bi liggey soxna mu dem ñaan ñu may ko te ko lamu ya tay daagu fañ la nobe njaañ am programme jaaj sik jàjj am programme te ko lamu ya tay daagu fañ la nobe bay day ànd ak borom bayam mu ñëw kaw la mhm. babakar tudé ma do ma tudé waddu dom keur babakar lay dal ndax moma fonku fonk lamu ya tay daagu fañ la nobe xalé nit léegi na xalé góor yi duñ dem fañ leen nobe xale bi daa da xale xalé da toy da amee ans xale dafa def nangam te ans du continuer mool du continuer famille bu rëy amul sens nag yi am na ñax bu rëy bu moolee day changé mise 1978 léegi màgget nañ ah non 86 yi dañu dem ba ci yàgg bopp yi tàmbalee weex ñu koy ñuulal bët yi tàmbalee dem mu naan yàpp safatul dara yàpp nga saf dara say bañ a baaxatul ngay dem ba ci yàgg bi ñuulal say bopp di bañ bañ lu waaye lo bañ bañ lu sa ndigg lay feeñal ngay romb xale bi ndigg la naan kii kii nga xam ne jëm na mag. mais mais password mais mais passeport passeport may ma balaa muy génn est ce que nit mën nga ko bëgg te ko dara parce que nit kenn ku ci nekk ci ñun koo ci dara di diine te diine mooy jikko ju rafet. diine. waaw jikko ju rafet. Uh-huh. mooy diine mooy jikko ju rafet mooy ngor ak ku nampu meew bo gele tir amna fo jaar bul tak jigen ndey ja ngay tak wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi rabb alquran mako wax bo takke yaaja leg da nga am lu bax bo xoolee yaaja rek yaaja lu bax la fi def dawul fay dawul nangam dawul poñe bayja dawul def nangam mbax réew mi dafa metti bo takke ko xam ni sëfa sëfa dafa ser de sëfa lamuy jara bëri salaire yi xaju ci salaire yi xaju ci téeméeri junni lu lay lii lépp nag boo takkee koo xam ne nii macha allah nangam ak nang dajay xaw a jeex kon boo takkee ko xam borom diine la sëba ma euh, jar naa jënd gis nga nam rafetee nag am am na xaw ma am na bi nekk nii xaw ma miray am am na côté ah na yow milieu mm. am na coupe carré am na muur tamit na am na cheveux yenn saa yi muuroo lay gënal yenn saa yi sëba lay gënal léegi nag boo takkee nag borom na koo bu sa salaire xaj bu ci sëba xajee uh-huh. def ko ci xam nga kër kañ lay neex la la kër di neex. bu dee am ngay million. def ci boo amee junni def ci. booy royaat la day metti gis nga yu ko yokku la tax waaye waaye ku sonn jëru ci sa mënin. man bu may takk soxna Penda mii. ami million may ko 4 millions. mais baax na am naa ko. mais bu ma Babacar di amul 4 millions dem jëli pere naan day may yaama 4 millions mi ngi juum. te Babacar mën naa sa ëpp doole sama 4 millions. Mm-hmm. mën naa may 4 millions mu sëy si mais ma yor ko yor bu. naqari kon ku nekk moom roy sa morom ne ku nekk tollu xaalis yorul jabar kaas yi wuute waaye ku xëy guux mm-hmm. kaas yi wuute borom ngàdd guro faañewul borom peñe mm-hmm. bu ngàddee mu yëy bu ngàdd euh, nga yëy ah. mm-hmm. ma jël sa place nga jël kat nga jël kat kat ñépp àgg Dakar kon toujours nañ xool ñi ñu war a takk ñi ñu war a jël te kër gi day neex ñu dund nuñ amee nuñ tolloowee waaye nag nay baaxul très bien nay baaxul dund rek moonu bañ a nay pendaction relance léegi ci biir couple yi parce que ñu bëri kafatuñu ak seen jabar li ñuy wax mooy daf leen di yàpp mbala daf leen di euh, maanaam euh, minimiser ci biir famille bi ba tax kafañoo euh, sang bi Seydina Mouhamed bokk na ci li nga xamante ne mu doon def ak jab mu ay foo mhm. kaf fooree mhm. te góor ñi léegi nangatuñ ko jigéen lan la bu yàqu mbëggeel dañ koy suuxat mhm. ndax dangaa gis ndaxu si bëgg ko bëgg ko te kat mën nga gis Penda Diallo musóoram neex la ci moom gis nga boo ko bëggee ak musóor yi ba mu def greffage yàq na couple ba nga gis ko regardam moo lay neex xataa dafa dem guerre ñu waddal bët ba mun a rasulaay siit bi tey la war a de te sama bët yee taxoon mu nob ma mm-hmm. parce que regard ba dafa rafet bët yi xam naa dafa rafetoon mu for bët ba tafaat ko ca mu leer naññe ndeysaan am na ñoo xam ne sa reetaan rek mooy tax ñu bëgg la ndax reetaan dafa bëri façon <laughs> baaxul jigéen day reen daañ di ko miim di kii di muñ di génn waaye jigéen di xàqataay baaxul ay feem la jigéen day waane góor day waane kon euh, li koy gën a kii mooy toujours oyof góor day oyof waaw jigéen sa jabar bu xam sëg rëy day day oyof góor day mën a joxe tàlli tàlli daa baax de war la yow saa yi nga bëgg lool ngeen xëy dëkk bi metti lool ba bëgg far yàqu wala mu nay lool góor de nag noo joxe góor day kaf góor gay mokk pooj xam nga luy mokk pooj maanaam man nag ci yéen laay joxe misaal nag damay bañ ngeen génn seen jëkkër yi wala seen ñu leen bëgg foog ne non joxe ci kii misaal exemple penda penda waaw bu ma takkoon penda tey bu ma génnee dañ naan jëkkëru penda ñu waxati Pa Ousmane jëkkëru penda kon jëkkëru penda ci mokk poojam dafa war a jaar fu baax di wax lu baax di solo yëre yu set ci mokk pooj la bokk ba sagal penda ndax sagal am picc la rëyul piccam sagal ñiy këppatal xam nañ ko rëyul waaye boo ko reyal nit moo ëpp reyal ko nag ma jox la 4 millions tey jox doxinu bu baaxul ñu ne jëkkëru penda ja ma nga ne day taxawaal rek penda di bu génnee def ñaaw ñaan jabaru Pape Ousmane a nga nële ñu ñàkkee fayda ku romb tàpp ko kon loolu bokk na ci jongee moo ko poj nga sagal sa soxna mhm. sagal sa sa sa sa jëkkër xew am seen kër may borom million xew am seen kër mais damaa war a ñëw feeñ ci xew mi. sagal la mm. sagal la. Eh, nag bi jënd naa ko ah ci kuréel penn moo jënd nag bi macha allah dangay ngay gën a sago gën bëgg gën a kontaan. jëkkër ji moo jënd gën a bëgg mu doon sa jëkkër. da gën a sa jëkkër. ah oui waaye xew ma ñëw xool nangoo nuyu sa bàjjan du nangoo nuyoo bu murit ak ab baax nuyoo bu murit dafa sag sag la sag la mu baax da lay tax mu gën laa bëgg. absolument yooyu di tax mu gën laa mm-hmm. bëgg di def. Mm. ba pare di wax ak moom di ko bëggee fu tool toll du koy tudd ñaan diw dafa bëgg soxnaam. aussi nga ko demee ba takk soxna. nga nga apprécier aussi. bu ma demee ba takk soxna dañ naan ah bëggoon na bëgg na la de fu mu toll da lay tudd da lay sagal da lay sagoo. kon daal nañu nañu nañu moytu góor gu bëgge góor du bëgge góor du diis góor du nay góor day oyof di kaf buñ di di di di kaf ak moom di wayoon moom booy xuloo sax ngay xëcc sa porte daal di tëj xuloo moom ci biir néeg di ko génne xale yi duñ ko xam ndax couple buñ xuloo ñetti yoon xale yi di ko fekkee seen gàllaaj day toj ñetti yoon ci biir kër gi ñetti yoon seen i doom fekkee seen gàllaaj si xale yi amatuñ ay gàllaaj kon da am na ñoo xam ne amatuñ gàllaaj génne kenn du xam xuloo amul ay dóorante amul ay rëkkante amul ay wéq yenn saa ngeen tëju ci biir nga jël loxoom naan ko sa yaay may la mburu bi ba këf ko xamoon na xew la bokk na si yaay neena mu jiil bi gëf ko ñu ci bëri li uh-huh. ñu soloo seen borom ko du ñu apprécier lu ñu sol jeex na wala waaw bu ñu mm. waaw te kat li kat li li mais nag dafa am ñoo xam ne nii nag bu ñu ëmbee dañuy xayadi maanaam jigéen war ta xayadi xayadi mooy lan mm. xayadi xayadi ah. waaye di xëy di doo xay daal doo moom daal. di tëb ci biir néeg bi kuuseeg lay taay jaxasoo. waaw waaw jigéen boobu baaxul. loolu mooy jur salte kuuseeg lay taay jaxasoo. Mm. xëy di wax wax ju naqari lu lépp day tax tamit mbëggeel bi di kii waaye bu solo yër yu rafet yow tam nga xam ne li ko metti ak ko mm. yéen a ëmb bii mu ëmb nga gën di ko jege gën di ko jege di naxtaan moom lu mu bëgg taxaw ci sama xel màdd ci nekk wutal màdd sama xel nanga ma ci nekk dafa ëmb moo tax jigéen warta xayadi jigéen dafa war a bëgg lool ñeenti ji ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti jéeg yi wala juróomi jéeg yi benn baaxu ci juróomi jéeg yi ban ak ban ak ban jéegu bëy baaxul boobu baaxul jéegu gileem baaxul baaxul xar baaxul jéegu nag baaxul jéegu ginaar baaxul lan mooy jéegu bëy jéegu bëy laa ma ñu rëy rëy foo toll ñu ne sa soxla si jaar na fii comme ko ay pateen yi lay def paasuwaar asalem ah fële lu mu tudd. li ma eh. la lew na foo tudd la soxla si jaar na fi nii. man de jéegu lu xew ci nit bi bu génnee nettali ko. léegi moom ak sëñ bi. jéegu ginaar nag démb kay macha allah démb kay. xoolal démb nangam ak nangam te bëri na looy nettali sa jëkkër. ba sa xarit nangu ko. dëgg la jàmbal ba tey démb sama guddi nangam ak nangam penn jàlla nettali loolu. am màgget ah? rëy la mel noonu am màgget dégg ko màgget mi ko dégg. léegi si yow loolu lay wër ci góor. Mm-hmm. te màgget la dàq. Mm-hmm. màgget la gën a moo ko pooj màgg la ëpp l'argent te góor ñi dañoo bëgg lu yomb. waaw boo leen joxoon 45000 hectares te maa yombe yomb lañ fay bay mu ne ah tam màgg te jigéen du rëbb sooy màgg nangu sa jëkkër nga def maa wor waru la salaam ña la mhm. waa léegi mais bëy baaxul. ak ban jéegu xar. nañu mujjee xar. jamal ci nag. nag waaw jéegu nag jéegu nag dof lay doon doole ji day bëri ni jaay mooy tuba maa doon lay doon force kaw la dof la nag. <laughs> jéegu ginaar seetu ginaar la lay lay set néegam kuusi ak lay taayu lépp ay jaxasoo lépp du xeeñ lépp di xeeñ néeg dafa war a di xet gu neex mm. dana tax góor di teel a dem tëdd ji mm. dara bu weex tàll oh. parfum ya j'imagine nemmali oh. doggali oh. këyitu kër ga dara semaine de silence nijaay nijaay noppalul cuuraay ya ndeysaan xeetu cuuraay ngeen xam lim leen ko xam nga cuuraay andil caabu kër gi andil caabu kër gi noqala dem ah, tëdd ah noqala dem tëdd moom la cuuraay bu tudd Kaolack TV Matsu kon loolu dafa baax jéegu jéegu jéegu kii la ginaar yooyu ah. yëpp du ko def ah. ah. jéegu ginaar te néeg bu xet xet ga neexul doo tëri xet gi dafa war a neex loolu sinon garam place bu tas nga demaat ci beneen garam place hmm. jéegu ginaar nag day sol lu rafet bu génnee parfum wu kol gu rafet mais néegam kuusi ak lay taay léppay jaxasoo dara du fa neex mooy jéegu ginaar dégg ñu naan la setu ginaar hmm. jéegu gilem, da ngeen tedd ba 2 heures ngeen tedd di waxtaan mu naan la yi armoire ma ya ma tal ba rafet na si bata la te amoko ko gilem gilem, day lek ci garab gi xelam nek ta garab gi te mi ngi lek fi kon kasi wutu way gu xey xëy mm. li nga amoon ba ton ni mais mu ñe ko mais la armoire diw ba te loolu ci goor day am stress day taxaso ndax ma ngay xol armoire mbiyaama talba salle de bain ba tamit amagu ko ku koy jéegu giléem bu ci des mooy jéegu xar wax naa bu ginaar wax bu nag wax bu ginaar ginaar wax naa bu bëy mm-hmm. jéegu xar a des jéegu yàq dara ngoog armoire bu baax mm-hmm. salle de bain bu baax appartement bu baax yëre yu bëri waaye du solo du summeeku moom jéegu mbóote yam di jéegu mbóot jéegu mbóotee fanaan ci dusu yenu ci dusu te du laal ndox te gan bu ñëwee bu accueillir ko danga ko noo mbóot mais jéegu xar jéegu yàq der la léppay mat waaye du sol du summeeku tey baas bu mauve sër bu violet daal cër yu bëla mu naan nijaay dama koy oyofal te mu sukaa diisal doora yet mu dee jéegu yàq a baax jéeg bu baax mooy Xadiija macha allah soxna jaara oh. jéegu vite fait dem dikk vite fait dem togg day taxawaalu fenn. xadiijatun sakkanat bil qalbi qaa'ilatan lam yuxzikallaahu fi darin laa takimi xadiija moo baax yonent bi dafa jóge xaaru xiraa ñëw dafa jommi kenn xamul lu ko jot ndax gis na fa lu ko tiital. xadiija naan ko dëfal dëfalal bu dindee musóor gi ne ko yaa ngi koy gis. mu ne ko gisuma ko de bu musóoroo ne yaa koy gis mu ne ko mi ngi nii mu ne kon malaaka la ndax malaaka du gis bopp boppam jigéen mu dem nag jaa at li war xata tax kii maa rawaaw lahaa dem nag ci ku ëpp xam-xam mu koy conseil di ko wax mu dal jëkkëram lan la mais jég bi nga xam ne day toog naa nijaay facture bi da na ñaari neuf la ak zéro ak ñaari deux nga daal di xam deux fekk na quatre vingt la jég day teey bu sa jëkkër ñëwee yaa koy accueillir hmm. macha allah dalal ko bu facture ñu ne nga xam noo koy waxee ah xam naa de seeru nangam ak nangam mais jéggi tëll ma rajax baaxul day jéggi tëll ne nee na rajax kii mooy tëll ma rajax li nga wax ni yëpp ci ay melokaan la mhm. mais melokaan jikkoo ko jiitu mhm. donc yan jikko ñooy tabax mbëggeel mhm. laata ñu yegg ci biir sëy yan jikko mooy tabax mbëggeel laata ñu dugg ci biir sëy xam nga bëgg jigi euh, nu mu tudd sax euh, sëy mi ngi commencé ci mbëggeel kiñu wara tak kan la ak kiñu wara bëgg kan la. ak kiñu wara may kum doon. kiñu wara may kum doon xam nga sey mbokum nday la daan doon wala bokum bay wala dekk gu yag gu la jikko neex wala ku tassay mbok nga ta ay mbokam jaburu angal jaburu angal kara jaburu jaburu angal àngal Carrefour koy tass jaburu angal par Carrefour a koy tass manam ki nga gis jikko doy la lool sa mbok la jikko doy la bah na lol bokku na ci famille bu bax mais ki jar na bëgg ki jar na bëgg mais ki nga gis sha allah teyul waxul ndank amul jikko ju bax bokku ci famille bu bax te nit tamit mëna bokku ci famille bu bax te lu bax mëna bokku ci famille bu bon ba paré bax waye li ñu ko gën a yaakaare nag mooy fu bax mën nga bax ndax lu dag morom jalay fekk ji koku nak mo jëra bëgg nga xol bu baax bax baax bañ sa xol kay kay bu ci dugg sama yaay boy bayi ma mana ëlëk lu ci xew fo xam demal ma jojo ñu ngi def naa moo ko moo ah, kon yeru saay nga bëgg penda ñu la penda mi ah ba xam nga ki ngay bëgg ki la de nu tuddu tudd ko bu sëb la de ak waaye kii mu grawé mo naan kaani la de kaani xeeñ la de bul top sa mbëggel ko dëggal nak xoolal bu baax da nga gis ku melni ni penda ba pare yor jukko yoy alaaji njaay loo njaay ñu daan am émission bu ma ko man dama dana tak géwal de mu ma bul tak géwal mu ne ko Pa Ndiaye Lo man dañ may jaawale géwél yi sax man daanaka dafa mel ni ci ñoom man man ci ñoom laa bokk mu ne ma Pa Ousmane comme que géer nga dama takk ca géer ya ma ne ko lu tax mu ne ma looy wut ci ngéwél ma nga ca géer ya mm. man tamit Ndiaye Lo lu muy wut ci géer rek mi ngi ci ngéwél gi mm-hmm. lépp ciy bañ moo di ëllëg mën nga ci dugg parce que dara newu ci mais problème mu Sénégal caste bi fi xew problème mu mm. famille yi dafa yàqal mm-hmm. kon daal looy daw ci pend naan dafa taar dafa rafetloo buñ ne la am na lu ci rax rek mën ngaa xaw a aniyeer da nga gis koo xam ne nii yow dana la ko bëgg da nga ko bëgg te ba pare mel na li nga ni nga ni nga bëgg ndax jigéen ñi bëri nañ fa ah. mm-hmm. day daal xale yu jigéen yi nga bëgg nit ñu la noo doo ci dugg mm-hmm. duñ la ko may te bëgg nga ba ba sori lool mais boo toogee muñ ëllëg mën nañ nga am keneen koo xam ne da nga ko bëgg te moo koy gën lool mais mën nga ne non dama koy jox sama bopp damay foog moom ba ëllëg mën nga cee am doom ah. mm-hmm. te takku la gis koo xam ne nii moom nga bëggaan nga ko fi mu war laa takk loolu nekkita ki la bëgg ni ak nga amalon dom ño bokku sey ba yàq ko kon buy bëgg tamit teyel ci ta ànd tek sa sax yam ci dëgg bi bañ a xëral ëppal ni julli timis mis rakka rakala bo defé 6 amul baax da amul xabla da yàqu kon toujours bo bëgge tamit teelu ba xol ngay bëgg ndax bëggaabul na mm-hmm. yaay yi bokk na ci ta aawa nak dafa jara tan aaway fondement ay birik pere lañu fondement ba paré sentir ko ba pare suul ko sëpp ko kenn du ko gis moo tax aaw en général mën naa di sonn ndax mooy aaw yaay aaw yaay mooy awu yaay ci togg bi awu yaay ci kër gi bu ñu ne la dafa ñaaw dafa nangam ak nangam te nga xam ne ay jikkoom doy na la ko takkaabul la duggal gis nga de kon daal loo bëgg bëgg bëgg bëgg ba te jikkoom ak yooyu doy la ak famille bu mu bokk ku yabu nga tey ndax lu feeñ ci sëy rek nuyoo na ca ngoro ga dañ kaa sayutoon mais est-ce que est-ce que kon lajji googu ñun ñun kilifa yi amuñ ci part de responsable parce que néew na nga gis kilifa ci yarinu doomam mu jàngalaale ko nu ñu bëgg ak kan ñi bëgg. kilifa yi bu baax kilifa yi bu baax kilifa yi bu njëkk ba nee naa la dañ doon toog di waxtaan ak xale yi université la woon sama papa mu ne dañ daan toog di léebal xale yi ndax reer amul ci kër gi reer mais bu ñu léebal xale yi di leen léebal di leen léebal di léebal ñu ngi jël cin li di ko xamb di ko xamb ndox mi di baax ñuy léebal bañ nelaw bu ñu xëyee naan papa fu léeb ba mujjee. maam fu lépp ba mujjee ndax reer bi amul ci kër gi la ñuy camoufler bañ kaa xam kon kilifa yi war a toog di waxtaan ak njaboot gi chaque semaine war nañoo toog njaboot gi di waxtaan ak ñoom di leen questionner di leen di leen laaj ba ëllëg ñu xam fu ñuy teg seen tànk waaye boo ko deful nag man sama papa mag la dama kaa jege woon mooy wax boo jegewul mag ñi ñu lay wax ëllëg da ngay réer te doo mën a xam. parce que xale bi sa doom boo ko bàyyi ba mu tànn ba joxe xolam ba jébbal boppam. Mhm. nga bëgg koo rocc. heure la parce que fii la ko ëpp gi ma am doom ki muy bëgg war naa kaa xam mhm. nangoon nga toll na ci bëggante bu ko ko bañal mais ki muy bëgg na ñëw ci kër gi mu koy gis ndax xale yi bu ñëwul tamit ñoom ñooy dem fekk ji mhm. ñëwee nag ki bëgg bu ko fekk see nga ne ko sant waa bu dee koo xam ne ni bañ nga mu dugg nga teel kaa mhm. ndax ñëpp la ñu war a sëyal ah. fii amul ñeeño amul géwal amul géer ñëpp a yam ay organisation yu fi defoon kese la bu dee yow bëggoon nag am nga ci droit nga teel kaa wax ne ah bu ma sañoon kat doo dugg waaw nag ah comme que sama papa bëggul amul problème waaye bàyyi leen ñu bëggante 9 ans génn 9 te kenn xamul fu ñu jëm te bëgg te jigéen day bëgg. joxe xolam joxe xëtëram nga naan ko duma la may ko sant nangam duma la may diw mais heure day am naa la papa man bëgg naa ba noppi ah. Mm-hmm. ah kon boobaa tamit day heure day am kon toujours nañu waxtaan ak xale yi avant avant avant ñu joxe seen xol joxe seen xëtër bu ñu demee ba ñu ko joxe ko rek day day d day. raadu ñu mën kaa allez-y allez-y yam euh, euh, ok rocc bu ñu mën zanu léegi beru lañ gën a bëgg ci couple yi. zanu léegi. beru lañ gën a bëgg maanaam ñoom ñu dëkk seen. toi et moi ah bu ñu takkee pare beru. toi et moi. wax nga wax nga lu am solo. man ak moom. <laughs> ñu ngi waaj quoi yéen a ngi waaj. d'accord toi et moi. oui toi et moi ak a ci am solo. Mhm. kii moom la defoon am na ci expérience sax. beru bi. amoon na fi di. waaw déggoo ñu am na fi am na fii am na côté bi am na côté bi bii waaw toi et moi waaw. këru mag yi ni ñuy rëy rëy rëy rëy rëy day am ay wanag boo demoon kër suñ basiiru gi ni muy rëy day am ay wanag wanagu yaa faati wanagu nangam wanagu nangam wanagu soxna nangam loolu mooy appartement yi ñu nekk ci kaw gi xam nañ yooyu xawaa ah, ah, ah. appartement day am fu mu baaxee te léegi sax muy dafa dafa dafa baax daa bokk ci sëy bu nekkee nag yaa euh, exemple yaay taawu kër gi mënoo dem mm-hmm. mën na laa baare mais sama yaay am na ay goro wala am na yeneen fi nekk wala samay rakk yu jigéen bu dee mën naa beroog sama doom def ci mu éducation bu baax appartement bi moo moo gën foofu ndax lépp li nga bëgg a yar sa njaboot da nga ko def li nga bëgg a dundee intimité ak soxna dana am waaye dugg ci biir kër gi nag kër googu 40 personnes ña nga fa problème mu miraas am fa yow ngay murit ma may tiijaan kii di laayeen nga am daayirab laayeen saagañu kii am daayirab murit na sëñ bi moo fi mën ma am daayira tijaan ne cheikhul tijaan sërif xut bu rabbaan kenn du moom loolu noonu muy jur benn een suñu biir yow nga aaye sa doom sol baa ma ne la bu ma neexee sama doom man sol baa ndax bàyyi maa koy maa koy jënd néewu ma ko baa néewu ma ko siin ëllëg nga togg fële kii tabax fële ndax kër gi kër bàyyi ko moomoon te amul kilifa bu njëkk ba kër gi daa amoon kilifa wadday suñu mag buñ xëyee ñëpp ñëw nuyu ko wadd bu sañee dóor sama doom bu sa bu bu ko neexee orienté sama soxna baat bi ci moom la nekk léegi nag baat comme que amatul ci kër gi ñëpp a yor baat ndax ñëpp ay boroomi kër lañ ku nekk baru sa appartement moo gën boo bëggee dund dund bu baax très bien moo gën mais buñ jaxasoo ci kër gi nag coow am nag ku ne dem te kuy yu bëri dañ naan du ma dem duma dem kër gi ëppale wu ma ci xam nga kañ la ñuy beroo bis bu ñu demee bay tojante bopp procureur jot ci nañ beroo moom moo ñaaw moo tax ñu beru teel avant ñuy tojante bopp ñuy tuddantee doom ku ne dem sa tudd morom moo gën nag ba coow am ñu soog a beru kër gi tolloo ci tas nañ ko tas léegi nag voilà man naa naa dem yow am nga nga dem Babacar amagul na toog ci kër gi ak samay jigéen bu amee na dem hmm. ku am na dem làqatoo ci kër gi ne du dem maye sama paa du ma ko fi bàyyi moo indil problème kër yi. njëkk njëkk nga ëllëg nga faatu. te yow mi faatu yow mu woon kër gi sa këru papa la yow sa papa moom am na kër ba jox la ko yow say doom yow seen bàyyi amul kër léegi xale yi dund ci kër gi seen këru maam la seen këru maam moo li fi xewoon naan ay këru mag moom ay këru bañ a miraas caaxaan la mag ñëpp lañ miraas sëñ Basiru Baay Ñas ñoom ñëpp lañ miraas dañuy kër gi ku ne am xam li ñu ci am kuy dem dem kuy toog toog wala bu kenn moomee uufaat ñëpp maa moom kër gi waaye yéen ñëpp uufaat naa leen kër gi sama baat lay doxee ndax maa ko moom ah. waaye ñun ñëpp suñu soxla yi bu ñu fi nekkee ku ne xam na ne kenn momul keur gi ku nek lu ko neex lay def lu ko neex lañu def nak keur gi ben education du fi am kon appartement fiñ tolni mo gën keur yu magi ñeeke yi hmm. nak sen part de responsabilité ci couple yi parce que souvent dañuy gis ne xale jigeen ñi bu ñuy sëyee ñañ fay fekk ñoo leen di buntu xatal la tañu hmm. ñoo ci goro yi hmm. njëkke yi ñu fay fekk rap jëkkeur wala magu jëkkeur lan moy ñeeke dégg nga baat bi ñeeke dégg nga li muy tekk wala dégg nga wolof njëkke ñeeke njëkk mooy njëkk njëkk ah, benn jàlloo day am ben rak seen keur bi mi xalé Penda njëkk ci moom bu foree dara jëndal xale bi benn chemise di ko uuf ba mu nekkee xale mu takk Penda lool moom sax lay jàngee wax Penda miin ko moo njëkk ci moom bëgg ko lool bu demee ba nekk mag ñu séddeeku ko kii mooy sa njëkke loolu mooy njëkke léegi na xam nga lu ñu def mm-hmm. dañu dem ba bàyyi nekk mag rek xool ku la neex mu sa njëkke njëkkee commercial njëkke commercial mm-hmm. mooy jur uh-huh. gi tuddee naa ko gaañal njëkki commercial waaw takk soxna may Mariama Sarr premier njëkke mm-hmm. comme ça ñu njëkke ah. mm-hmm. jël deuxième njëkke may ko kanam may ko yaa meeru ngàcc waaw war di war di léegi nag mm-hmm. ah loolu moo daan am njëkke day njëkk ci yow njëkke bokkul ak ndeyale wala ñoom ñaar ban la ci njëkke sa jigéen la day ah. njëkk ci yow di la topp topp boo dee bay may premier cadeau mataloo de Babacar Penda la ñaata nga yor nga ne ko cinq cent mu ne la yii tuuti na yokk ko ci 400 yi muy 900 portable bi maa ko ci def jox ko. Mm. kooku njëkk ci yow. kooku du yàq sa soxna. ok mais njëkk yi fi xew nag léegi mooy dañu sëyi ba tas. Mm. ñëw toog ci kër gi nag saax ci kër gi. xam de. yow nag saa yi sëyi nga ba tas indi ñeenti doom. sëyi nga fële nu mu tudd njaayeen ba tas. Mm. indi ñetti doom yu sant njaay indi ko sama kër man ñun suñ kër ñun. yow nga war a yor la yor say ñetti doom nag xanaa nag nga war a def ndànk nag yow mën nañ laa yor yor say ñeenti doom ngay gën a buux buuxlu mm. te coow li nag xam nga mooy lan mm. waat di di jox jigéenam di jox jigéenam ba xëy nag takk soxna mais waat nag boo daan jox sa jigéen cinq mille nag léegi mille lay laal wala téeméer <laughs> ndax ja doomu jàmbur lañ la may waaye nag boo ñëwee nag muy laal téeméer am na lu am jox ko penda lu mu am jox ko penda penda rek a liggéey mm. mais nga jël xar yeew ko ci kër gi te doo ko doo ko jox mu naan léegi moom yaa ngi ko jox téeméer ay doom yaa ngi jox ndékki añ reer courant yaa koy fay mais te na coow di am chaque jour njëkke yu nag baaxuñu njëkke nag saa day man njëkke toppatool sa càmmiñ boo boo manqué mu mottali la mu mottali la mm-hmm. waaye kër nag boo fa ne waaf nag indi say ñeenti doom nag te naan toujours sama càmmiñ ñu def lépp am na ko mën na ko te yorolu suukar kam léegi nag ah. léegi nag sëylaan bi bu ñëwee fekk si njëkkali ci biir kër gi ki mm-hmm. sëy si lan moo ko war diggante ma njëkkali ngir ñu nekk ci cohésion sociale bu baax. ki siis ko war moo di day xam ne magul jëkkëram la fekk si wala rakk jëkkëram mu jàppee ko maga moom tamit. Mm. oyof lool béjjënu dënn bu mu ko am. Mm. bu yoree dënn du neex boot waaye njëkk bi tamit béjjënu ginnaaw bu ko am bu ko amee tamit du boot kenn na xam ne moom tamit ji càmmiñam dañ ko am may jigéen. bañ a nuroog am na yoo xam ne. bëgg nañ cent ans te kenn nobbu leen. nob dafa jafe de. Mm-hmm. ak jara sant yàlla ngoro di ñu nob la waa da xam ne la wax gi ak fay bu wong gi ay li fi gaa yi lajji nit ngoro ji ne ba taay ñu wong na ko bëgguñ la sa càmmiñ dem ñu bëgg ko mu fanaan ci bopp koñ di jooy ba suba ba bërset ki bëgg sa càmmiñ fonk ko ki bëgg sa càmmiñ sagal ko ki bëgg sa càmmiñ naw ko ngoro tamit noonu fonk ko lool ndax am na doomi jàmbur yu ngoro ji ñu wong leen ngoro ji ñu ñu wong la doon nga ku ne doon nga sa papa mm. kon bu ñëwee nag sëy ci kër gi mais fonkal ki nopp sa càmmiñ fonk ko lool nabb na bee ko. mérite na ah, respect mérite na administration admiration mu ne mérite na ah, bëgg. ba ëllëg waa mérite ak bëgg ba ëllëg coow du am gis nga euh, mhm. xar mi ci kër gi. xar mi ci kër gi. ci mhm. kër xaj bi ci kër gi. Mhm. buy nelaw na xar mi ci kër gi xar mi bu mbëkkee sàcc bi ba sàcc bi yuuxu waa kër gi génn xaj bi boof ci kër gi war naa rus. xarmi bu mbeke sàcc bi ba sàcc bi yuxu wa keur gi gene xajj bi war naa rus am na ñu wax lo xamna ni ci xajj bi lañ ko foogee won dafa wara garder keur gi ah way bo fonkul sa jabaru mak sa jabaru rak ba kanen fonk loolu bu ñu ko doom gi bala fa ken faalé wula da war ngaa rus de te kat boo fi xoññantelee jabaru waa ta te joxe xol ak xëtër ak lépp yor na ci lépp da danañ ko ciopet daf def comme yamata wuti appartement teewul bu weeru dee mu jox yaayam nangam seen waa kër. aywa maa ngi sama soxna. yow mm-hmm. nag loolu nag mën naa. très bien acca la di fekk. est-ce que ndaw si war ne seen ndam muy boole ñi nga xamante ni moo di waa kër gi muy maanaam waa kër mbokki jëkkëram. Mm-hmm. mais aussi mbokki jëkkër est-ce que war nañ à chaque fois rek topp nopp ku euh, wax bon bon ki nga xam ne moo di wala sax yenn saa yi sax du bon mais dañu bëgg yàq deram. waaw moo tax gis nga euh, góor xam nga loolu luy sa tontu yow góor dafa war a mat yàlla moo yaroo yayoo mat mais ci waxeen dafa war a mat ci lan dañoo dem ñu jox la doomu jàmbur mais boo ko indee ci kër gi ki ñu la jox war ngaa mën a xam mooy kan pour nga maîtriser ko bu yaa ma waxee sama jabar dara war naa mën a xam na kii mu wax li mu wax sama jabar dëgg la wala du dëgg ndax jox jigéen lañ la jox mais ñaar ñu yàgg na danañ xamante liñ koy sosal dana ko xam liñ ko wax sa defu ko dana ko xam ba pare yow miy takk da ngaa war a doon kilifa kilifa. am na ñoo xam ne nii euh, boroom kër lañ mais duñu kilifa. Mm-hmm. nga takk Penda Diallo mu sëy ci kër gi màggali jot nga ne Pape Ousmane dama bëgg màggal de waxal ak ah. am na. ñoo xam ne màgg. duñ màgg te la sama yaay bu la aay na la doo dem doo dem te loolu du yomb sama yaay mooy sama kilifa. Mm-hmm. mais man sama soxna may kilifaam sama soxna man lay tàggu sama soxna man lay tàggu sama waajur mooy sama waajur. mën la mën la yilif te yilif dafa am fu muy yem sax maanaam kilifteewu Sénégal aaya la aaye ta duñ tàggoo duñ la duñ la euh, ay ay aaye bul def nangam bul def nangam mais kilifa waxtaan la comme ni yonent bi doon def yàlla ko wax wala yaa ko xalaat nangam ak nangam wa shaawirhum fil amri daal di waxtaan mbir yi ba mu taxaw parce que am na loo xam ne nekkal xutba zaman bi sa nekkal li li ci xew sëriñ am sa taal boo xam ne dafa miin portable ngeen ciy waxtaan mais mooy yoon yow tuur yàlla léegi leneen leen mu nga maîtriser kon sa soxna kon boo nekkee kilifa mat ko kilifa ba ëllëg buy tàggu yow lay tàggu yow lay waxal yow yaa sañ a aay yow yaa sañ bàyyi mu dem ëllëg loolu dana am solo mais ñëwee rek takk soxna ñoo def nii sa rakk bu ñëwee yuuxu ko sa caam si jigéen bu ñëwee xas ko nag loolu du yoon gis nga nit bu amee fulla kenn du yab soxnaam ndax dangaa jël jigéenu jàmbur indi ko ñag bu nekk day gën a ñages la muy ñag ñag bu ne day gën a ñages la muy ñag toolu tàndarma toolu tàndarma dañ koy barbar toolu tàndarma ay bekk suukar du ko wër ndox mi day ñëw daal koy seeyal wala nga ñëw daal di macc jàll ci tàndarma ji nit day am fulla ci kër asalaamaaleykum mbëkk tuyu ñaari bëñ wadd boo fay wala nga ragal xeex jot na. léegi nag goro yi kenn du fexe ba jaar ci yow yëpp nañ mujjee goro yi goro yi waaw rapidement waxtu yi léegi mu jot de. bëri na hmm. sëy dugguñ ci émission bi de. Ah, ah. Ah, waaw duggaguñ ci waaw dañuy doog a commencé. xale yi si diggante bi. Hmm. Hmm. Euh, doomu gaño yi ak doomu indaale yi Mm, doomu jiit la. waaw. Mm-hmm. xam nga day sëy yu bëri day am doom ga am doomu indaale. Mm-hmm. yooyu parfois dañuy gis ne léeg góor gi. Mm-hmm. dafay xaw a am ak euh, baadoolo bu nekk ci moom. ba léeg buy wax xale yi da koy xaw a fésal. da xaw a feeñ. ngay wax góor ñooñu. xam nga doomu jiit du doom kenn du ko wax ci rajo. bu bàyyi di de dee bu ñu miraasee lu lu diw donn moo donn nangam doomu jiit la du donn lañu war a wax du donn mais du doom yàgg ngaa dem ci famille doomu jiit la ba paasal na bàyyi ji màkka jox na ko 4-4 kooku bu ñu ne doomu jiit la du doom fi tam danaan rës mm-hmm. day tiit doomu jiit la du donn lañu war a wax xam nga ne kii boo dee du am am ngay kër yu bëri may ko benn pàkk téye ko téye bu rafet ndax doom mooy ki nga yar tubaab ba daf ne suñu góor ga benn góor ca gin gi new jàngalekat daf na ko yéen jàngalekat yi da ngeen a am ay doom yu bëri ma ngi ko waxee ci école normale temps yooyu ñiy jàngale école normal lañ leen doon formé ba école normale amatul nag la jàng mi gëj a normal ndax normal dafa baax mu ne ko doom yi ngeen am dafa bëri képp ku ngeen di jàngal seeni doom lañu mu dem di jàngal xale bi di ko seetlu xam nga jàngalkat day seetlu seetlu ba gis na kii day taara def nanga mu xam na kii loxoom jotul seeni ginnaaw mu dimbale ko ba xale ba màggee ba am liggéey dafa ñëw dimbale waat enseignant mm. na ko yaa ma dimbale kon képp ko sa doom ci jabar indi sa dooma ku bëgg ginaar nag bëgg cuuj ya li mm-hmm. ñuy ku ku ku bëgg ce cere yi xobu kan da ngay. ah suusalu jaboot. da ngay nax boo ca bëggee doom da nga naan yaa ngu. voilà suusalu jaboot boo ca bëggee doom da nga naan yaa ngu. te ginaar gën a ragal waaye boo ko fay cuuj ba mu topp la. booy ngoro ji xale bi am na doom faneen booy dem di ngoro ji. mais booboo nga yóbbaale. bis bu la xale bi bëggee mu bëgg la nga takk. waaye boo àggee ak rek xale bi tiit tonton bi daal di daw. Ah, ok dafa ragal tonton tonton yow duñ la may yaayam. kon la buñ la naxtaanee ba indil ko nag. mais fexeel ba xale bi ki nga jur ak ñu nga jurul kenn du la kenn du la xamee am na mel sax yaay ji bu bëggoon a seegee day retiré wu. ndax dafa bëgg doom. Mm. gën a fonk sax xale boobu. bu jënd fourniture jotee nangam ak nangam bañ na ko sax bu ñu demee sax ba papam reconnaître ko jàll sa yow nga reconnaître ko mais dana xam na du doonu wutal koy këyit déclaré ko xam nañ nga juróo ko mais déclaré ko ndax ku ne dafa war am ay këyit mu nekk sa doom bu ëllëgee bu nekkee benn jabar nga am rek yam ca ëllëg boo faatoo sax macha allah même bu dul doonu sax dañ ko xajal ci alal ji ndax ñoo bokk ndey ak baay bu dee ñu bëri nga am sax tamit teel kaa yeewi mm. kon xamoo ëllëg kii géej gi moom xamul kiy weri mm. xamoo kiy géej a kiy kon toppatoo ñëpp faale ñëpp ba ëllëg waa yor sa doomu jiit doo ko faale doo ko toppatoo donc di ko xoñañal am na benn xale bu ko doon wax bi mu nekkee xale mu papa mu séddale boisson moom Sprite la koy jox muy jooy rek naan ko joxoo ma ndox la ndox la wax na dëgg xale la xale xamul Sprite xale xamul bu weex bi di bu jaune bi la xam orange bi ñëw ñëw waa gis nga ne mu koy xoñañal bi mu màggee mais lu kaa metti kon toppatul ñëpp ndax ëllëg xamoo ki la ci euh, amal amal léegi léegi nag Pa Ousmane ñun ñu dem ci goro yi goro yi waaw mu ñu jeexale foofu laa góor ñi moom peut-être duñ ci am peut-être particulier ndax góor ñu ci bari dañuy daw dépense gis nga sunu baay mi ngi fii wàccee bal muy guddi mën na bañ a xam lu bari ci kër gi mhm. peut-être lu muy xam rek dañ ko koy nettali mais particularité yi problème bi fi muy jógee ci njëkk yi la mhm. ak euh, sunu yaay yi sunu yaay yi nga xam ne ak jigéen la nit la ñu yëkkati jox leen ko mhm. naka lan ko war a yore ak lan moo ci seen responsabilité fu mu toll yi ci néegu sëy goro yi ñaari goro la responsabilité xale bi saisi ci gor bu jigéen ak tamit goro bi ci xale bi ñu ko indil néegu sëy faaleel goro fonkal njëkke kon ñu fal la ci say biiri maas bul fay bul fuuy mbaa ngay fo lu ko mooy boo faatoo ñu fàttal la nijaay du moroom ab sang la saxal ci ndigalam tey moytu ay tereem billaay lii boo ko defee loo jur mu barkeel tànk bu gudd ak làmmiñ wu dang boo bëree dërët itam doo am ngërëm gumba tëx lu de moo la war ndegam bëgg ngaa mujj ci màggetum yor yor soor kilo yàq liibar tanaan ceeb bi daagom lu jaay nga leb te xëyoo gontoo dëkk xul doog marsa neexul jigéen bi fi réew réew du jur lu dul wayu bu maanatu muj bor wàll yu golo bu ko jàppee noppati jaboot golo golo ak golo bokkul hmm. boo séy sa goro nga def ko golo yaa indi erreur ci kër gi yaay nga bàyyi ca kër ga yaay nga fekk si ki jur xale bu góor bi toppatoo ko ba mu tool nii mu gis bëgg la nekk boo mais fonkal yaayam yaay ma tax nga jot ci di bu ko làggaloon nag bu ko defoon nag bu ko reyoon nag kon fonkal yaayu sa yaayu jëkkër moo tax ñu yebbi njaay njag nangul njag nangul njag nangul màcc na fi kaani yi fi xorom. njaag nangul ay waay woowu. dina ko nangu dina ko nangu. ko nangu ay waay bopp ci digg la njëkkee. dina ko nangu mooy njaay. waay waay. dëgg loolu wax sax dama amoon ab maire boo xam ne sama xel la woon dañu naan toog mu ma. balaa sama xel dal. sama doom ju góor ji. dafa am soxla boo ko uuf sama xel. wallaay ndeysaan kon njaaga ngoog bu ñu demee sax ba koor gi kat. seen njaag bi ëpp ay xale yu góor ci dëkk bi day bëri ay suukaru koor. waaw ah, mm-hmm. kon ja ah jëkkër dafa jafe di. ak a jafe. góor ñi góor a jafe. wallaay ñoo jafe. dañaa seer nag ñoo baal ma xool bi góor bu baax a jafe. sëy yomb na waaye sëy bu baax. Mm-hmm. kon kooku nag boo fonkee sa yaayu jëkkër. kon def nga li nga war a li war a def ndax. yaay nga bàyyi baal ma aj bàgg rek. jëkkër ga. waaye nag goro bi. goro bu ji goro yaayu ku góor ki. na fonk ki ko fekk si. na koy naxtaan sëyu xale yi caaya ju amul ñor la. mag ngee ci jàpp de. ah way ngir mu dëgër xelam matagul li ko xelam matagul ba muy xale lañ la jox matagul xoolee ko sa doom sa doom yàgg naa laa wax loo xam ne nii jaaduwul mais da ngay muñ ndax ki la ko moo tax sa góor ju sa doom ju góor jëla indil moo yar ko àggalal yaram yenn saa ñu jox ko dépense mais yow dañu lay jox xaalis te doyoo ko dara sa doom ji nekk jox xaalis Mor da la jox xaalis Mbaye da la jox xaalis mais rocc ju benn 1000 francs yokkal ci dépense marché bi dafa metti mais am na ñoo xam ne xool dépense sax seen loxo lay tege. jaar fayal na ci télé bi da ngeen a bëgg seetaan fayu leen ko bu seen doom doom fay du ngeen def nangam fatt nit ñi ba di def bay fiire sa doom. comme comme comme yeewu leen dafa guddi 9 heures. woo sa doom ci lalam mu tëdd wala sa jabar dem kaa ñu waxtaan dem ba day mel sa da am nopp xale bu góor bi sa doom di ko fiire am na ñuy dem am na ñuy mais man si tey so doo ma takkoon ngay jigéen bi. mais ren nga rey da tey kii tey kii tey kii lu sa yoon. dafa takk ay kii mais noonu goro yu baaxul fatt seen doom. su et souvent xale yi dañ koy faral di wax yàlla ñoom ba ba ñëwee ji waxtaan ak ñoom yàlla nañu yàlla may goro bu baax. goro yi lañuy gën a tiit quoi. en général booy goro ji. yow ko góor ñu ne an sa baay nga ne dee na. an sa yaay ñu ne dee ñu ne biyee baax na. <laughs> ndax amul ay yebbi. xoolal ma yebbi gi ma yebbi gi. jur sa doom maternelle primaire lycée dem ba màgg ñu jox la 500000 saa amee doom nga dajale waa kër gi yëpp àgg njëkkee xale yu góor yi njaag nangul du joxe ba pare daal di ñibbi joxe wu fi dara de. fi dara. waaw waaw muy joxe du génne sa poche doom joxe wu fi dara mais teraanga du du tuuti. jox nañ la teraanga mais bëggee dama am benn benn waay jur Pa Ousmane ma relancé la foofu mu ne ma jur doom ju góor fi mu toll nii pertement doom bu jigéen mooy. doom doom bu jigéen doom bu jigéen. merci beaucoup doom bu jigéen. mais xoolal chaque jour nga ñëw yebbi si. mais ñëw xam nga luy yebbi dëkk bi mu dëkk ak di la toggal. puuj paaj yu neex di toppatoo. di la bàyyilal sa néeg di wax ju baax di la jural ay mais looloo yebbi. ka koy defal nag te yebbiwul duñ ko faale xam nga ku ku ñu faale. ka nekk États-Unis ba sa doom takk wala jeeg ba mënatu sax am mënatu sax am doom. Mm. mais bu yebbi jotee wala sugal koor mu jox leen lu bëri. ay waay waay waay sama jabar ji waay nangam ak nangam waaye kenn du yow mm. aj ko ca kaw bëgg ko lool te fekk na sa amu fa doom waaye toppatoowu la ndax ma ngi États-Unis waaye xaalis mu indi rek sa zamanu zamanu xaalis ak mum mu jot in lam tàkkun xaalis bu xiila kii la ko jot xaalis rek dañoo bëgg xaalis lool bañ nañ ko ba dañ naan xaalis këpp bu diis bi lañ koy wooye kon xaalis bi dara ay këyit ñu bokk juboo la bis buñ ci jubootu rek xaalis bi dañuy. lu nu valoriser la rek amul benn solo. Mm-hmm. jërëjëf Paa Ousmane naka la ñuy def fi mu toll nii kàddu gu mujj pour sëy yi mën a dal waaye tamit ñuy bëggante yërëmante yiirante ndaxte tamit jigéen. Mm-hmm. kon nu war a bëgg la. ku nu mm-hmm. war a sopp la. ku nu war a jox cër la ku nu jox gëdd la ku nu war a dooleel la. waaw euh, la fi mag ñi bàyyi woon rek fonk suñu soxna yi fonk suñu soxna yi. ki nga xamne ne nga wara am yamal ci benn hmm na gaay yu de waxal ak ñom ku ben wara wara ku meuna yoral ben yamal ci ben xam ne dañu bëgg ñaar da mu wasula sa waru lepp ci yam ah. ku wara am ben? yamal ci ben ku wara am ñaar takal ñaar mais gaay di ñaan tak ñaar xewna na nga dem tak ñaar te mëno yor ñaar ya indi ciow su kër mm. ki wara yor ben yor ben, ko yor ñaar yor ñaar bo yoree ba par nga mandu jabar kenn du leen yamaale rek ngay màndu ci ñoom cëy la mu am cëy la mu daj màndu boo màndoo ci ñoom nag macha allah yor nañ yor bu rafet mm-hmm. bëgg ko lool soxna si sëy si tamit mu tey màndu ci sëy bi te xam ne sëy jaamu yàlla la sëy jaamu yàlla la noppi noppi naa bala ñu naan noppil sax noppil fonk sa boroom kër lool ba ëllëg nga am doom ju baax mm-hmm. macha allah waaye gis nga ñu ngi fiy dégg ñëpp cëy la mu am cëy la mu daj ñoom am jaara bu so ñoom faa wax dëgg ñëpp mag ñi asu jànq mag ñëpp dañoo def la leen diina sant si jaamu yàlla waaye boo séyee ni mu la neexee doo amee doom ju la neex waaye boo jaawee ni mu li mu la neexee nga jaree ni mu la neexee séyal ni mu waree boo séyee ni mu waree rek macha allah ëllëg danga am doom ju baax ndax dañuy muñ nag muñ muñ muñ laaj ci xam ku muñ muñ mm-hmm. cere ju neex jigéen ju baax a koy mooñ ah. réex réex la naa ko réqate di yaa moom ko ajal bañ ku séenu kaw far naa lu ñu lay gërëm bu euh, baaxa baax Pape Ousmane euh, fàttali leen ne ngon ak jàmm ñun tam ñu ngi waajal spécial Saint-Valentin ci deux voix ñaari tali am na dorénavant ñoo xam ni que ba léegi ñu ngi euh, envoyé seen i poème ndaxte bu mu nee gaaw bu ko defee tamit ñi nga xam ne yi dinañ leen jagleel ay tableau d'art yoo xam ni que merci beaucoup Modou Kara Kan moom itamit yónnee na poème bu gudd a gudd gudd sax xam naa ne Pape Ousmane ngon dinañ la. recevoir fële ci ñaari tali ci deux voies yi bu ko defee ñi nga xam ne dañuy jog euh, jongante ci wàllum poème mm. comme que yow sa xam-xam màcc la ñu yàgg la ci dégg quand même nga mm. ciy def liggéey bu am solo ci ci ci way ci poème wolof ah, bien sûr mais tubaab bi tamit sunu sunu baay fa mu nekk di di ko déglu dinañu mën a jàppale ci yenn kalama yi ndaxte mm. euh, ñoom Mida Torodo ñu baree bari ñu ngi yónnee seeni i euh, seen i bëgg a bokk ci li nga xam ne moom mooy jotaay bi mais soo leen ci yónnee rek ci Ababacar Faye plume noire Khalifa Ababacar Faye moom itamit ñu ngi koy gërëm bu baax ñi yónnee bari nañu suba ngoon incha allah à de vingt et une heures dañ ci def waxtaan bu yaatu ci deux voies ñaari tali sunu bàyyi ñu ngi lay gërëm di la jox dig daje ëllëg incha allah. maa ngi lay gërëm di leen sant. merci beaucoup remercier bi di ko. xam-xam xam-xam juddu na fi tey. waaw xam-xam juddu na. mu ñu ngi lay gërëm bu baax yaa ma ñu ngi lay jox dig dajee ba ëllëg. waaw Babacar amoon wala ngoon ak jàmm ci Dóobaay. waaw amoon di remercier Pa amoon mbégte contentement dalal la fii suñu plateau Match Show mm-hmm. di jox mbokk téléspectateur dig daje ba ëllëg incha allah. jërëjëf Pa Ousmane merci beaucoup. waaw euh, di wax ne kontaan nañu lool macha allah nii rek nii rek la gëm sa bopp rek nii rek la macha allah mbir mi kenn moomu ko. micro yi kenn moomu ko média bi kenn moomu ko ca kaw ca kanam macha allah fi ngeen nekk noonu la mm-hmm. gis nañu fi borom bi gis nañ fi macha allah matériel bu jaar yoon gis nañ fi plateau yu am solo kon gëm sa bopp nekk ci yoon bi di wax ne invité naa leen nag lew na ñeseen invité naa leen lew na ñeseen kër Imam Mouhamed Niass ñëw a baax kontaan bu ngeen bu ngeen bu ngeen ñëwee insha allah kontaan nañ loola ah. suñu bàyyi ne ni moo loo bëgg dina la ko def kër Imam Imam Mouhamed Niass invité naa leen fa le 4 mars insha allah xam nga damay faral di dégg voilà mu mm, mm, ngoog mm, loolu laa bëggoon wax sax. lew nañu seen. macha macha te ka ah. waaw moom moo wax la ko. incha allah incha allah te kat euh, émission bi émission bi ci mbëggeel lañ tolloon. Mm-hmm. pour man sax danañ dugg ci élection yi. mais àggagum fa waaw pour nañ dugg ci élection yi waral dugg ci waral mais bu ko ci mbëggeel lañ yam mm-hmm. ëllëg. dinañ ëllëg mu ñu ci mbëggeel. ëllëg premier cadeau dana ñëw. élection mm-hmm. ñëw. élection yi waral ñëw. waral mooy seet bi ñu toj du ko muur ko bu waral ñëwee rek mu sëyi te bu sëyee war faa sëy bu baax. Mm. lépp rek macha allah ndànk-ndànk la. dinañ si ñëw incha allah bu baax a baax ak Pape Ousmane merci beaucoup Salama Seck ñu ngi koy gërëm moom tamit nee na moom mooy Daba Ndiaye adresse Sara Nimzat euh, plume euh, Salamalek merci beaucoup ñoom tamit yónnee nañ seen poème d'amour ngoon incha allah lañ koy faram fàcce xool kan moo ciy jël raw gàddu gi ci xale yi. benn merci. merci beaucoup Babacar. ba suba ak jàmm gërëm ci teewaay bi waaye tamit euh, di gërëm képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Kaolack TV doxe dig daje rek 18h45 dinañ fi jaar ci xibaar yi ci kàllaamay nasaraan. kàllaamay nasaraan ah, ci lay yaatoo. ci kàllaamay wolof. wolof. kocc kocc baax na. 18h. 45 45 minutes kon nanu ko xaar bu ko defee itam ñun dañu leen di euh, xibaar guddi bëccëg suba ak ngoon xibaar yu wér te wóor. Mhm. yu ñu saytu ba noppi ñu ngi leen di gërëm incha allah ñun ñu jox leen di daje 21h ci plateau spécial. Saint-Valentin, bonne suite de nos programmes à tout le monde.